muhammadul xayru jamil kawni wa kaana lii billaahi xayral kawni la nga ñëw seen sëñ Jibril Sène ñu tàmbali waxtaan jàpp naa ne sëñ Blaat Mbay moom sofe na gars yi waaw sofe nañu bu baax a baax a baax ba pare harmonie bi ni muy dugalante air yi daal eh, mayu suñu borom la yàlla ko suñu borom gën a sàmm may ko mu yeggale liggéeyam ci xaside yi eh, kon ma bàyyi laat eh, sëñ Jibril Sène su ko defee ñu dugg nag ci euh, waxtaan wi bala ñoo ñëw ci sëñ Abdou Lahad Dieng ak sëñ Abdou laxaat Aw euh, jàpp naa ne moom te sëñ Jibril lay laaj sëñ Jibril. xam mel nii moom. xam nga sa gars yi moom am am am naa Jibril rek moo leen mën a moo leen mën a cordonne <laughs> waaw kon nag euh, naa ñu ngi lay nuyu di la di la bëggee wax dëgg yàlla tey eh, jaar ci yow di ziyaara suñu wëllëre wu ñu bokk xamante ne wax dëgg yàlla boole woon nañu mm-hmm. Euh, soxna Fatou Mbacke gi mhm. di suñu rak dëgg yàlla yàgg na maa wax euh, taxawaayam ak yi tamit waa yaatal bi nga xamante ni am na ko ci biir waxtaan yi kon nag ñu ngi lay siyaar bu baax a baax xam naa sax foofu laay tàmbaleek yow rek ndax euh, nii ngeen nasoo di ay ndaw di ay waxtaankat tax seen lan moo leen ko tax jóg ak it lan moo fas yéene doon seen contribution ci waaru Sëñ Tuubaa yi alhamdulillahi alladi yusalli ala nabiyil muntaqa man voilà barkab sëñ Tuubaa ñi ngi leen di nuyu baax sëñ Xamidun ak Seydina Jibril di nuyu sama mbokki taalibe di samay wëllëri di samay xarit muy Abdullahi yi wala Abdul yi ñu àndandoo ak ñoom ci jataay bi di leen ziar bu baax di ci bëgg lool nag di tàmbale kàddu yi ci ñaan la Cheikh Ahmadul Muntaqa suñu borom doole ko fee yàgg lool te wéral ko lool ba mbooleem yéeneem ci liggéeyal Cheikhul Xaddim lépp mu yàggale ko noonu la ñu siyaare kilifa diine yëpp bàyyiwun kenn di ñaanal mboolem murit sëñ Tuubaa yëpp rek ak mboolem jullit yëpp suñ boroom defal leen tawféq di beeg lool sëñ Xaamidun ci jataay bi di ñaan it suñ borom defanu ci tawféex ci tàmbali ki te defanu ci tawfeexit it ca mujj mbégte loolu am na ci ndax sëñ Abdou Lahad Mbaye nii mu ko ubbee moom matale na sëkk wax dëgg yàlla xol yi sedd na te te te daanaka dara xewagut kon sëñ Abdou Lahad yàlla na la suñu borom gënee taxawu tamit gën laa defal jàmm sëñ Abdou Lahad aaw sëñ Abdou Lahad Dieng ñoom ñëpp di di ñu baax wax dëgg yàlla sëñ Amidoun moom comme ni mu ko waxee rek amoon nañ kóllëre lu jiitu jataayub tay bi di déggante ci yu bari tamit muy ku baax ku yaatal koo xam ne dalay fekk nga nekk ci ruq làqatu kenn du xam ci yaw dara bu la dalay yéene ñëpp xam la te jàpp naa ni bari na ñoo xam ne moom ñoo koy ñoom ñoo koy topp moom ci ay jataay ci yu mel noonu waaye kum yootul boppam balay soxlaa xamit loolu bëgg bëgg sëriñ bi la kon nag ñu ngi lay ñaanal yow liggéey bi ngay liggéey suñu borom gën la cee jàppale sëñ Jibril moom xëy na xàmmantewul nii waaye yàgg naa ko xam man ca bu yàgg Tuubaa ca diggante wilaya xeet yooyu ak ay rajo yooyee nga xam ne jaaroon na ca ndax maa moom ñoo bokk Daaru Xuddus man taalibe Daaru Xuddus la kon min nañ ko bu yàgg waaye jaxasoo gi moo moo moo moo moo desandi loolu nag man sama yambare la ndax man damaa ne ci sama ruq ba rek xam naa loolu moo tax ginnaaw bi li nga laajit laaj bu am solo la ndax mbooloo mi ñu ngi ko tudde majmuatul muhaadirin mooy rek groupe waxtaankat yi ñëpp di ay ndaw ndax maanaam man mii ñu ca jiital maguma ca am na ca ñu ma ca mag waaye ñi ca ëpp nag maa leen mag moom waaye lu ñu boole du ay at wala ab tolluwaay déedéet sëñ Tuubaa nu boole maanaam ñëpp it bokkuñu fu dëkk ñii ngi dëkk dakaar ñii dëkk Touba ñii dëkk feneen ci Sénégal ndax sëñ Abdou Lahad mi Tiwaawan la dëkk waaye Dakar la féet man mii Touba laa dëkk sëñ Abdou Lahad mi la dëkk ku mel ne sëñ Saliou Seck Touba la dëkk sëñ Moustapha Sow Dakar la ne la dëkk nga gis ni ñu baree bari lay doon ñëpp nag dañuy waxtaane sëñ Tuubaa di ay jàmbaar nag yoo xam ni ay ndaw lañu waaye ay borom xam-xam lañ ndax xam nga suñu toon yi waxtaane sëñ Tuubaa moom yombut yomb na ndax moom boo jàngut boo ko tàmbalee doo ci sori moom néew diir bu néew nga koy waxtaane daal di noppi moom kon kon faaw rek nga doon ko xam doon ko gëstu tamit te tamit bokk na ci suñuy objectif mooy jubbanti yu baree bari ndax bëgg nu ñun kenn bokk ci ñun ba noppi di wax loo xam ne téewoo ko fenn ndax boobaa day mel ni mas'uliyya bi mais responsabilité bi day delluwaat ci groupe bi yëpp moo loolu moom bokk na ci suñu sunu sas mooy di jàng di gëstu lu ci waaye di di di waxit mu teg ko fu leer ngir njàngalem sëñ bi fu na lay yegg ndax émission bi ñu def nii ñoo ngi ci biir Touba TV waaye fu àdduna bay fa àdduna bi yem nang noo fay toppe kon nag loolu bokk na ci lii suñu objectif alhamdulilahi rabbil alamin yàlla min ñu ci defal tawfeex ndax ndaw ñiy waxtaane sëñ Touba di ñi ci bokkul bëriwut moom ñi nga xam ñi si bokku bërut ba ci ñi féete ay mag sax am na ñoo xam ne bokk nañ ci donte ñun ñoo leen ëpp jot waaye teewul ñu ngi ci biir liggéey bi di jokkoo ak ñun ñuy daje nag di waxtaan ak mboolem lu yoon wi laaj même bu dee finance sax ñu dajale luñ lañ mam def ko ca yooyu yëpp ñu ngi koy taxawee la ca la ca toppit mooy di jàppalante ci xam-xam ndax mbooloo moo xam ne ay borom xam-xam lañ du ñàkk ak rawante am ca ñu ciy jàppale jàppalante bu baax a baax am na luy loo xam ne doy na firnde rek ci ni liggéey bi suñu borom mi ngi ci def tawféex mi ngi dox ndax daanaka fa jamono yi moom télé yi nga xam ne dañuy soxlawoo ñuy waxtaan wala rajo yi ci yoonu murit maanaam mën naa ne nangami fan yu da nga gis kenn ci mbooloo mi mu nekk ci ci benn ci média yi di waxtaanee Sëñ Tuubaa tënk nañ ci sax yu yu jàll yu bari yoo xam ne mën nañ koo tënk nga xam ne dañuy wax ni dat sàngam wala nàngam bu ne diw sàngam ca rajo tàngam wala site sàngam wala nangam ci suñ mbooloom mi la bokk nga xam ni nga xam ni loolu ak yaatal la ak yaatal lay doon ñëpp nag di benn baax baax goo xam ne fi mu doon kenn ku nekk day mel ni sa morom la gën sa bopp ndax xam ngeen ni waxtaane Sëñ Tuubaa ak jàng xasida bu yàgg ca bu njëkk ñi ko daan def dawuñu ñemente dawuñu ñemente moom mbokki baas du mbokk yu yu baree bari dañuy ragalante te loolu ñun fexe nan ba mu deñ ndax ñun dañuy am ay ndaje dafa def ñetti waxtu ba ñeent ñooy ñuy lekkandoo di naanandoo ci kër kenn ci ñun te buy waajal yooyu yëpp duñ fa fekk dañuy dem lente sax di fanaanante ci ay ay bokki néeg di fanaan ba ci benn mat laa di bokk dañuy bokk programme waxtaan kenn di ko waxtaan ñaar ak ñett ànd ak moom muy waxtaan ñu toog ànd ba noppi ñu ànd ak moom ñibbi loolu dana am lu jur day jur ni waxtaane sëñ juba ak jàng xasida yëfi sëñ Tuubaa la ku ku ko neexut doo ca bokk ndax mooy tànn ndax moom mooy tànn lu ko sopp kon bu la tànnee ngay waxtaane sëñ Tuubaa wala mu tànn la ngay jàng xasida du sa ngóore sa njàmbaare neex baat képp taxul ngay jàng mokkal xasit taxul ngay jàng day neex sëriñ bi mu boole la ci kon àndandoo doon benn wañu dara liggéey bi ndax damay faral di wax ni tant ba ñu tant moom soxla fu suñ Abdou Lahad aaw moom koo mën a doon te bëgg a waxtaan bu fekkee ñooñu tànn la doo fa waxtaan kon ñun ñu ne ñooy woo ka leen neex te Sëriñ Tuubaa asamaan la jërul kenn di xëccoo naan maay xool ak may ma jàll bañ xamee loolu nag te sentir ko te yëg ko ca lañ boole suñu bopp muy muy muy genn buum di waxtaanandoo di yëkkatandoo di tegandoo ngir lan ngir ngir ngir teg yëf yi ci yoon ak ngir doon benn ak ngir liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey wér wax naa ne nag am na ñeneen ñoo xam ne seeni tur fesut ci mbooloo mi waaye teewut ca bokk ndax joxe nañ seen kàddu te ñu ngi ci ànd ak ñun di ñu digal ak di ñu ak waxtaan ak ndax jot gi mëtaliwut comme ni ñu ko amee ñun ñoo leen ëpp la jot xëy na tax ñu gën cee fés waaye am na ñenn ñu ci ne ñoo xam ne fésuñu ci ni ñun kon loolu mooy liggéey bi ak ahdaaf yi muy objectif euh, mbooloo mi waaye man fi ma bëgg ñëw ak yow mooy sëñ tubaax ku ne xam na ne ku teel a jóg ci xam-xam la teel na cee géeju teel cee tàbbi teel ca tàbb itam ak njabootam fële sax mi ngi wax ne euh, euh, yuhibbu rabbi taata subbaani déedéet am na feneen sax fu mu koy waxee ci ci ci ndaw ñi euh, yaa ayyuha sibyaan laa tastaxilu anil huda wa bil ulumi istaxilu fastaxilu bil afi wa tilaawa waaye wajtani bu majalisa saxaawa tey xam-xam gi ñu war a tey ban ban wàccuwaay la ndaw yi yoonu murit am ci daw di tertu xam-xam nga xam ne da nga ciy gis ñoo xam ne nii moo xam xam-xamu tubaab la waaye xam-xamu diine yi mooy xam-xamu sariya wala wala wala xasida sëriñ tubaab yi wala téere xam-xam yi ndaw ñi taxawaay biñ ci am tey fi tey lan la ci sëriñ tubaab def ci loo xam ne lu réussir la nga gis ci koo xam ne nii âge mën naa bañ a am sax 30 ans wala 40 ans waaye di dégg déggin woo xam ne ak di génnee fasaxa benn genre méthode boo xam ne ni nit ñi dañ koy dégg rek mën a mën a mën a mën a mën koo jariñoo tey. yëpp tëli nañ ko am loolu rek day loolu rek ba mu waxee loolu rek ca nga xamee ni kon lu baax ak lu mu rëy rëy moom teeloon naa déclaré ni moom yàlla damaa beral bakar fegg woo xam ni lot lool na mbindeef yëpp te lool lii nga wax nii loolu day dugg ci biir la mu wax ni yasari lii mu yasirul asiri maa ajasal waraa la daa masiri waraa nag kenn génnu ci nee li ma yàlla jox daal lott na ci mel ni mbindeef di ko am loolu da ciy dugg kon xam-xam bi ndax sëriñ bi moom xam-xam yépp la làq ndax xusul uluma la wax wa maqaamaat rijal ak mboolem fa góor yàlla yeggoon it làq naa ko ci xam-xam it sëñ Tuubaa moom ci boppam rek marqué na ci loo xam ne kenn mës koo marqué ci adduna ndax kenn mës sa dégg ci àdduna nag ku nekk ci daara di jàng ca daara ja professeur ba moom moom daara ji wala wala sëñ daara ba moom daara ji ne ca daara ji di dund yow nga di dong ci biir daara ji bu noppi taalif taalif livre boo xam ne téere boo xam ne dañ koy jàngale ci biir daara ji loolu bu àdduna sosoo ba léegi amul ci genn fànn goo ko fekk même boo ko indi woon ci njàngum àdduna mi amul kenn ku mën a ci université di fa jàng ba noppi mhm. liggéey benn programme boo xam ñu ngi koy jàngal ci université yooyu ko ci université bi mhm. sëñ Tuubaa ci ci jamono ko sëñ Mor ci la bind téere yu njëkk ñu ñu koy ay mawaay bu xudus tasu siraar turshiba yooyu mhm. ñu tàmbali di ko jàngal ci biir daaree sëñ Mor Anta Sali kon moom teel naa xam luy xam-xam teel naa jox xam-xam yitte wax ne tamit nag na ngeen xam ni ku leen tee jàng xam-xam ku nekk da leen a bëgg da leen a bëgg sànq na ngeen xam ne ku leen teree jàngit bu ngeen xam ne mooy représentant iblis ci kaw suuf wa man nahaakumu an na fa nahyihu ila dalaali yantami ak wa man nahaakumu an taalimi fa huwa xalifatu lainil mujrim kon teel naa jox xam-xam wàccuwaay yoonu murit booy xool loolu nag laa faxra ak tiitaru taxut nu koy wax waaye day ak dëgg téere yuñ taalif yu dëkk ci réew mi yoo xam ne dañ ko taalif te ñu ko taalif dëkk ci réew boo koy xool ci at yu mujj yëpp boo ko doon wàññi boo ci génnee yi yi gone yi ndaw yi murid yi taalif la cee des du bari ci lépp di tegu ci xam-xam ngir lan ngir sëriñ bi yàlla da ko jox xam-xam ndax daa wax ci moom daa wax ni yàlla mi nga xam ni mooy mooy ki xam lu kenn xamut moo ma jàngal xam-xam xam nga loolu bu boobaa nag mu raw ci mu raw ci xam-xam du nekk xar baax wala boog du mën a ñàkk ay ñooñam rawit du mën a ñàkk ndax lim yor ca lay tibbal ñim yor ndax arab yi dañuy wax ni kullu inaa in bi maa fiihi yamdaxu ndaw loo gis la muy def lay seen na kon lu sëriñ bi amee rek loolu lay mën a tibbale te moo wax ni allama ni laahul alim mimma yashaau min ulum yàlla moo soo moo xool la ko soob ca xam-xam yane fa moom mu jàngal ma ko kon sëriñ bi noonu rek lay demee waxaat moom sëñ Tuubaa daal nii nga gis ni kon da nga ca gis ni ndaw ñi nga xam ne ay taalibe murit lañ moo xam ci école yi tubaab yi la wala ci école yu mën a doon buñ toppee ndigalu sëñ bi di ci góorgóorlu di sellal ak di góorgóorlu seen kem lay kàttan ca njàng ma ba noppi di jàng xasida sëñ Tuubaa yi ku defut ni ñoom ñoo lay ëpp xam-xam loolu xaw ma bàyyi nañ ko xelam déet fi mu doon boo demee ci université yeeg CM e yeeg lycée yi ña ngay gis ñu ne ci daayira di sëg sëg ba nga def ne amuñ jot amuñ jotu jàng xool lañ ca compo ya examen kaw la ñu nekk ndax sëriñ bi moo ne sama njàng mi sama xaside yi damaa ñaan yàlla kuy jàng di ko jàng day gën a leeral sama xel ba nga kë kay jàng te jàng ko yow mi jàng xaside di jàng di jàng yaa koy dàq jàng moo ko wax dañuy fa kullu ma lii yantami min nazri aw muntazami faj alhu yaa dal karami nuuran li di taalumi min nasarin la aw muntasimin la lu askanoo ci man nag moo xam wesar la wala way nanga ko def muy leeral dënnub kii jàng loolu kenn génn ci loo mën di jàng nekk ci xasida Sëñ Tuubaa yi ko jàngal tey sellal koo mën di jàngandool yaa koy raw ndax dangay ngay jàng njàngum saa yi bu noppi leeru xasida Sëñ Tuubaa yi ngay jàngal yi ngay jàng di leeral sab xol ba ma ngay jàng loolu fi mu toll nii misaal la mu réeré boo xoolee ci xam-xam fi mu toll nii Sëñ Tuubaa lim ci joué kenn moo kenn ko jëwut moom ndax boo demee ci xasida yi moom dama ko dama ko jëlale waaye xasida yi fi mu toll am na ci ñu bari umpale mooy da ngay gis ñoo xam ne xasida yi ñuy jàng di ko yëkkati la ñuy jàpp mooy xasida te du boo delloo ci téere xam-xam yi li ci sëñ Tuubaa liggéey nga xam ne moom njàngale diine lay doon kenn fekku ci sëñ Tuubaa bu dee tasawuf ngay woote boo demee ci Masaalikul Jinaan doo fekk kenn ku ci fekk sëñ Tuubaa bu dee da ngay jàngale téere fiq nga xam ne dañuy jàngale ak jaamu yàlla boo demee ci tàmbale ci tasul sixaar ak tasul shibaan ak ya ca topp nga dem ci tawxid mawaayibul quddus ni ko sëñ Tuubaa jàngalee wéetal yàlla kudd sëñ Tuubaa fekkoo ko ca nga xam ne kon sëñ Tuubaa wéetal yàlla ak liggéeyal yonent bi ak joxe yàlla cëram ak jël lislaam teg ko fa mu tegu kenn fekk sëñ Tuubaa da ngay gis loolu kon da koy tënk gis ni kon ndaw ñi dëgmal gin dëgmal xam-xam loolu liggéeyub suñ Tuubaa la sëriñ Saaliw radiyallaahu anhu comme ni sëñ Jibril waxee ko ci misaalam moom it mu ñëw di liggéey ci xam-xam loo xam ne sëñ Amidoune wax na ko léegi ku moom fekku ko ci xel koom ngay dem fekk dong gu ndaw goo xam ne yëre yi day tilim wala mu xottee ko mu mokkal alxuraan di bind ay téere ay usul fiq ak ay téere fiq di ko way nag di ko way ngay gis enroute ni mu jafee jàngal enroute ni mu jafe nga xam ne téere yi sax bëriwut boo demee xel koom gis dong yu ko bind yu ko way yu ci way yu baxur yi way ko boo demee ilmul mantiq nga xam ni moom xam boobu raar na sax ba daanaka ñu bari xamatuñ ko yàlla xam na ne ay ndongo yu jàngee ci xel koom wala njàngi ndookaa wala lagan wala feneen dañ koy bind di ko di ko di ko di ko taalif ak yeneen ak yeneen boo demee daaral muxti nga dem ci sëñ abdourahman ak ñam njàngal ak ñam formé liñ génne ci xam-xam nga dem ci al azhar bu cheikh mudul li mu génne ci ay borom xam-xam ñaata ndaw yi murid yoonu murid ñoo nekk Maroc di taalif ay téere yoo xam ne ñun ñii ñëpp ñu ngi ciy gëstu muy téere diwaan Cheikh Cheikh Abdou Masarik ay yu mel noonu ak téere Cheikh Amadou Bachir bi ak yee ci aju yëpp ñu tàpp toppaat ko di ko seggaat di ko taalifaat ba mu gën a neex a mën a yër ñu nu koy indil ñu di ko jàng loola da ngay xam ne kon sëñ Tuubaa fu mu wax ni yàlla teg na ko fu ci at ci ci ci xam-xam dëgg gu wér lay doon kon sëñ Tuubaa moom ak xam-xam daanaka doy na ci am jàngale si ñaamidun naa ne sëñ Jibril Sène ubbi na kàddu gi ma bàyyi la nga ñëw ak sëñ Abdou Lahad Dieng balaa ñoo ñëw ci sëñ Abdou Lahad Aw euh, ndax jàpp naa ne moo gisa yi sax bëgg naa mu ñëw ci ci tey fi tey mbindum sëriñ bi lañ ciy jàng di gis ay moo sax ndax tey mu waxee ne euh, ndaw ñi dañ maa bëgg wa waddali figaaru wal kibaaru bi kaw nikal jamil yooy jabbaaru tey cofeel gi nga xam ne ni ndaw ñi am nañ ko ci sëriñ bi ak xam-xam léegi ci biir mbind yooyu da ci am ay ay karaama ay moo gisa yoo xam ne ni sooy jàng ba yegg ci faaw nga taxaw gis naa léegi bi sëñ Mbay di jàng euh, sëñ Jibril bu déggee wenn way da ngay gis da maam booy bu nit di jàng lu sell lu set loo mën a dégg su egsee ci wayu kéemaane da nga koy yëg yow ci sa bopp da ngay xam ne lii lu mat a la euh, sëñ Jibril am comme euh, maanaam kéemaan yooyu ngay wax ñoom ñi dañ cee bokk dama koy wax tout le temps ni sëñ bi broché na ko léegi da ngay gis xale yoo xamante ni dañuy toll ci jàngum euh, français wala nekk ci waaye nekk ci daayira gi ñuy nekk ci daayira yi di nab nabi mm-hmm. da gis day mujj dootuñu sol yëre yu tubaab dootuñu tàggoog njàpp dootuñu kii dañuy mujj sax fer ijji dañuy mujj mel ni së da leen sëñ bi da leen di tarbiye yóbbu leen foo xamante ni kéemaan la tey jii ñii seenu seenu classe ak seenu génération ca jamono nëga ne lii warul woon a doon seen i yitte loolu lépp nag daa bokk ci kéemaanu seriñ bi foofu sax laay dugalee chablaat euh, chablaat man li ma ci yëm mooy ndaw ñi tel na yéen di liggéeyal seriñ bi ci wàllu xam-xam bokk tey jii génération ya fa nekkoon ak mag ña rawatina yi tamit nag li nga xamante ni moo fi njëkkoon a xew donte ko yi tamit loolu lu baax la muy loolu ñu tudde woon diiwaan yaag yu mel noonu ndax noonu ko sëñ Muntaxa di indee ñetti ko booba jamonoy man di tegee yaag ak yu mel noonu ak euh, feeñal sëñ bi ak jël yi waaye fi mu nii nag dañoo soxla xam-xam moom ci boppam mu wax ni dafa fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa ci xam-xam yàlla tàggatal ko ay ndaw yu mel ni yéen ci wàllu xam-xam boobu euh, lan nga ñu si mën a wax ci xam-xami sëriñ Tuubaa fi mu ko teg ak ni ni mu ndaw ñi tamit ba tax muy taalif xasida yu bëri jëmale ko ci ndaw ñi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina wa nabiyina muhammadin il makin wa ala alihi ajmain ila yawmi din assalaamu aleykum taala wa noo ngi nuyu mboolem ñi fi teew ci jotaay bi yëpp ñu tàmbale nag ci nuyoo bi ak ziar bi alxalifatul am li taifatil muridiya cheikh Mouhamadul Muntaxa al Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ko wér ba mbooleem naal nga xam ne naal na ko ci diine lislaam lépp yàlla kattanal ko tawféexalal ko ba lépp mu àgg ci ak ayam naal yim naal bokk na ci li ñu war a waxtaane yi tey sax muy xam-xam ndax xam-xam lu ko ñor la moom bun ta bun fàttalikoo ci ak dundam ba mu feeñee jamono bon jaalee jàngee histoire am dañuy xam ni ba ni mu toogee xalifa général de Mouride yitteem yëpp mës a génn xam-xam ndax dégg nga sëñ Sàmbay radiyallahu taala anhu nee na ci askanu Mbàkke nanguwuma kenn ko ci raw Cheikh Mamadul taxa kon moom xam-xam da koo mas a ñor ginnaaw loolu nag maa ngi leen di seet sëñ Amidou bu baax a baax di rafetlu jataay bi am na solo ñu ngi topp émission yëpp ñu ngi la ciy ñaanal tawfiq sëñ Tuba ak ngërëmam di siyaar sëñ Jibril moom it nga xam ni bu ñëwee rek daanaka di la dolliwaat même dee sa kër nga nekk di nga xam ni ñii li ñuy wax maîtriser nañ ko di siyaari sama soppe sama xarit sama jàngkat bi sëñ Abdoulahat Mbay di ko mën a jàng xasaayit nga xam ne daanaka boo bëkkee moom émission ngaa wax sax mën na laa daaneel yow waaw mën na laa perturbé sax moom bu dee jàng xasaayit yi di siyaar suñu jëwriñ mi nga xam ne moo jiite mbooleem liggéeyu waxtaankat yépp di euh, Serigne Jibril seen moom it di suñu mag di ku ñu ku ñu jiital daal nga xam ne saa boo ko wooyee rek dina xool ci gone yi kenn ni ko nañ dem ànd ak yow liggéeyal sëñ bi di siyaari sama xarit sama wëllëri sama turandoo si Abdoulaye Daaw di siyaare mboolem nag umma bi yépp Ibrahima Fall Lamp ndeysaan da ngeen ah, <laughs> a <laughs> a baax ko min maa ngi siyaar nag sama sëriñ Alaaji Maam Thierno Mbacke moom sëriñ Cheikh Awa Balla ko ñaanal mu yàgg fi loolu ti wér di ñaa di siyaare doomam sëñ Ibrahima ak sëriñ Cheikhouna Mbacke Jalaluddin ak mbooleem njabootam gépp bu ko defee li nga wax daa am solo lool ndax dañoo toll ci jamono joo xam ni nit ki mënta jariñu mukk te amul xam-xam faw nit ki bu bëggee jariñ ci àdduna faaw day am xam-xam ñun nag Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom lañu yaakaar adduna ak alaaxira daa a dund xam-xam ndax maase nañ ci ni mu feeñee jamono at yu néew la am way génn adduna bi mu jàng mboolem ku nekk ci biir daara ji maam moo andsali doon jànge rek yéem nga Sëriñ ci ab xam-xamam bëggum ko bëgg ak xam bu ko yàlla jox xam bu sell xam ne wax nan ni maam mënoon a jàngale la waaye donga yi nekkoon ci daara ji maam Mor Sëriñ Tuubaa daana ko jàngal bind boo xam ne àggagu ci téere boo xam ni Sëñ tubaa àggagu ci waaye Maam Mor da koy jàngal ni ko diw sàngam bu waxtu sàngam jotee dina ko jàng si léegi dama la koy jàngal ngir bu ñëwee moom nga jàngal ko ko te xañ na foofa Sëñ tubaa àggugu fa ci zaahir te Sëñ Tuubaa it bu ko ko jàng see noonu la koy jàngale ba mujj ñu ëpp ci daaree Maam Mor Anta Sali jànge ci Sëñ tubaa sax moo leen gënal jànge ci Maam Mor ngir xam-xam bu leen ak fasaaxa gu nekk ci moom mu def ay at yu néew ak Maam Mor Anta Sali ndax bi di génn àdduna 28 ans la ñaar fukki ak juróom la am ak way juróom way juróom génn àdduna waaye mu tàmbali nag mel ni day doo ko tàmbali ak dundam waaye yeeseele ko jaare ko ci xam-xam sëñ wax na ko léegi tàmbali di taalif ay xasaayit ñu koy jàngale di taalif ay xasida yoo xam ne si nii day jëm ci wàllu teggin taalif xasida yoo xam ne day jëm ci wàllu tawxid ba yéem mbooleem koo xam ne si nii am nga xam-xam ci àdduna rek boo xoolee digganteem ak alxaadima jaxate kala xoolee alxaadima jaxate kala nga xam ne wax nañ ne jamonoom kenn réew ko woon ci loxatal arabiya nga xam ne jamono wax na ni bind leetarum arab bu bu jub sax daa woon te alxaadi bu mosaan bind ab leetar koo mas gis te am xam-xam da ngay yéemu ci set gi muy set ak ni woy di jube waaye mujj na xoolal sëñ bi yitte jim jox xam-xam ba mujj raw ko ba alxaaj yi mujj ni ko yow kat maag sa wujju dañoo doonoon say sëriñ ngay sunu taalibe waaye bis ni ko tey yaay sunu sëriñ nooy say taalibe maag sa wayjur dañoo doonoon sa wayjur ngay sunu doom waaye bés ni ko tey yaay sunu yaay sunu yaay sunu jur nooy say doom loola nag la ko may sëñ Tuubaa mooy ab xam-xam léegi nag mu tel cee teg ndaw ñi ni leen nit ki bu dee day dund ci àdduna te bañ a am gàcce adduna ak alaaxira lenn rek la mën a ju jëfandikoo muy xam-xam yaa ayuha subaan in xiftum xajal fa xaddimoo taaluman ala amal fa xaddimoo aqaidi sunniya mujaradatin an firan wa miria nit ki mënta jëriñu mukk mukk mukk ci adduna te jaaru ko ci xam-xam ak fànn xam-xam bu man di doon moo tax mu wax ca ci sixaar ni ndaw ñi leen rek laan di dénk nan yittewoo sàkku xam-xam ak mokkal alquran te jéem am teggin laa tastaxiloo an il hudaa wa bil ulumi fastaxiloo bil xifsi wa tilaawa wajtani boo majalisa saxaawa saa boo góorgóorloo ci sàkku xam-xam am ci yitte rek daanaka majalisa saxaawa jataay yi nga xam ne mooy jataay way taxe yu bëri yàlla dala ciy musal sëñ tubaa nag moom dañuy wax ni loo jël ci àdduna rek moo ci jël première loo waxtaane sëñ tubaa ci lu baax ci xeeti xibaadaat yi sëñ tubaa ciy génn première sëñ ahmadou jow fa dani imaamun al fardu allasi laa yajmau wala yusanna wa siwaawu way yajmau nee na saa bu yàlla tëralee ab course mboolem nit yàlla yëpp xool liste bi sëñ tubaa bi yàlla tëral sëñ tubaa aw turam nekk ca biir nee na mboolem nit yàlla yi ñëpp deuxième la ñuy jéem a jël waaye kenn du jéem a lal pie ndax xam nga xam ne xam-xam moom daa ma sañor sëñ tubaa boo xoolee bi muy tukki lu jiitu tubaab bi di ko yóbbu ñi amoon ak jafe tubaab bi ñëpp nga xam ne seen diggante dañ cee échec parce que liñ bëggoon a jëfandikoo tubaab bi mooy ay ay ay ak ay kënu ak ay ngànnaay sëñ tubaa nag nee na bi may dem lenn rek laa yor ragal yàlla ak xam-xam yaa jumlatan xat sàllasoo bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu axrajtumuni naatixiina bi annani abdulillahi wa innani la mujahidu wa zanantumu anna almadafia indana wal kullu minhum siwaxlan wa yuhaasidu fa maqaalakum xaqun fa inni abduhu wa xaddimu rasulillahi huwa alxaamil fa maqaalakum inni mujahidun saadixun inni li wajhillahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa man sama jihaad yëpp du génn xam-xam ak ragal yàlla loole nag moo tax ñu xam ne xam nit ki mënta dund mukk ba am ngërëmul yàlla day jafe te amul xam-xam ndax yàlla sax dani fa aarifoon xam la in taabudoon fa in lam yaarifoon fa kay fa taabudoon na ngeen ma xam lu njëkk ngeen may jàmm ndax bu ngeen ma xamul du ngeen ma a jaamu moo tax ndaw ñëpp dañoo sukkandiku waat tey jii royale Serigne Touba jàpp ko ngir gëstu ji xam-xam ngir mën a yóbbu liggéey Serigne Touba fañ ko bëgg a yóbbu ndax liggéey Serigne Touba bi faaw foo mën di gis nit dafa liggéeyal Serigne tubaa lañ koy nose mooy xam-xam Serigne Touba danoon bi bi xidmatil xitaabi wal xaddiisi yasbutu laa bi zahabin mawruusi maanaam ci alxuraan ak xadis ak xam-xam ci lañ may donde waaye man kenn du ma donde ci alal mbaa xaalis kanzil kitaabu wal xadisu wal adab laa jamxu fiddatin wala jamxu sahab man ku may dond ci ñaar nga may donde mooy alxuraan ak xam-xam waaye kenn duma ma donde ci alal mbaa wurus wala xaalis moo tax boo xoolee ci wakkaan xaqan muy wax ni rafiu biir fan ma rafiu biir fanil kitaaba wal furoo mahal ahadisi siyaa yi saaburo léegi loolu la léegi nga dégg ko naan ataytanil ah, jamia doona sala bi daal di koy utiliser ni suñu tubaab nee na yàlla jox na ma lépp donte yàlla jox na ko lépp waaye ataytani ah, joojee la ko la ko la ko wund mooy rafi'u bir fa'il kitab wal furu mahal ahadisi si hadisa bu rox daal di wax nag ni ataytanil ah, jamia doona sala bi mboolem fan nay xam-xam yépp la ma yàlla nattatal ba mu dëgër mu takk ko ba mu doon say mu jox ma ko moo tax mu ne allama ni laahuma ilman lam yura xattu li xayri wala xayri lan yara man maa amee xam-xam boo xam ni ku ko gis mën nga gis su ma la wanee ginnaaw saaboo boo gisaatee xam-xam bi man nga gis dundam yépp xam-xam la ko joxoon yitteem yépp xam-xam la ko joxoon moo tax mu teel a tàggat ak njabootam nga xam ni boo xoolee njabootu Serigne Touba gi la ko tàmbalee ci Serigne Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mahmadul Mourtada amul kenn koo xam ne si nii sag dund te waxoo ci daara juróo ci ay donga mokkaloo alxuraan jàngaloo ay nit xam-xam defar jëmmi nit ba nga xam ne boo ko gisee di nga xam ne kii dañ ci ak réer ki bu xasee ba dañ ci ak rek ak ak yaakaaram yàlla day dolleeku ak toppam yàlla day dolleeku ak bëggam yàlla day dolleeku ndax nit ki lu mu xamul bëgg ko da koy jafe moo tax suñu Tuubaa ñun dañoo defal tawféex yoo xamante si nii dañoo teel a wëlbatiku ñu waa majmuhatul muhajirin yépp gëstu ci xam-xam di ci dox kenn ku ci nekk fa nga dëkk lu mu gàtt-gàtt bu doon fukki nit wala fukki boo liggéey ba wàcc di nga leen dajale def ci ñoom téere moo xam naxju la moo xam tasudu subaar subaan la moo xam du sixaar la ngir barkeeloo ko ci liggéey bi Sëñ Tuubaa doon liggéey rasulullahi te jaaroo ko ci xam-xam bind moo xam su subaan wala masaalikul jinaan wala dara mais ñu jox la tem Sëñ Abdou ngay gëstu ba yàgg yam ci bayit woo xam dalay def xaal ngir boo ko peesee maa ngi mën na par exemple nga jékki-jékki rek gis mu ne bi yaquudu ulumal ghaybi rabbi muallimi rabbi muallimi loolu lu extraordinaire la rabbi muallimi tey mënoon nañ ci fanaan a guddi mooy dañ naan la diw a jàngal sëñ bi diw la jàng moom mu ne rabbi muallimi ne la eh, nela la ne la àllamanil laahul alim mimma yashaau min ulum ne la àllamtanil xayba anta al alimu alladi àllamta yooyu defaat da ngay jàng ba yàgg yegg ci boo xam ne dana la def xaal doo xam sax bi ay waxam léeg-léeg gis ci bayit yoo xam ne da ngay xam ni li ci gëmee ni mooy ndond gi nga xam ne doon na ko rasulullah alayhi salaatu wa salaam xam nga boo boo diggee ci bayta mu naan kulliyat yi mu'jizatun ta'aqqarat lu ngeen gis ci man rek mu'jizaat la moo xam ni ci rasulullahi la waroon a feeñ yeex a feeñ ci moom yàlla yebal ma feeñal ko ci man gis nga ci juróom-ñaari mu'jizaat yi mu doon wax naan dama wax naan yàlla defal na ma juróom-ñaari mu'jizaat yoo xam ne loolu saa yu ma ko dee jàng man dootuma fi nekkati juróom-ñaari mu'jizaat yooyu saa yu ma ko liiree damay xam ni kun tëkkaleeg sëñ tubaa nax nan la ndax dafa wax ni wa fiya sabhu mu'jizaatin li rasul xat zaharat wa qabluha fustu bisul ñu ne ko ban ak ban la mu ne xalaba bil muxtaari rabbi bil ayda xabla zuhóor yi laa ulaaxi man ada lu jiitu may feeñ jamono la ma yàlla ne ma boo demee adduna ku la songu daanu koo songu daanu ko wahabali rabbiya ilman lam yakun min attaallumi wa jaa nii bi kun yàlla ni ma defal naa la xam boo xam ne wa jaa nii kenn du ko jàng ci téere képp koo xam ne sam njàng ciy téere nga ko sukkandikoo bu ngeen demee adduna yaa koy raw ndax li ma laay xamal yow du nekk ci ay téere baaha rasulallaahi kullal anbiya alayhimoo abqa salaamay rabbiya bi xurbati asra sinina bi xidam xaalisatan li si wujjóodi wal xidam doon gi ma dund rasulullahi tax na fukki at yi ma ko liggéeyal seel na sell goo xam ne yowmal xiyam rasulullahi day jàpp sama loxo yonent yépp maase def kenn ku ci nekk bu dikk ba lay wax ni la ndax xam nga xaadim rasul nga ne waaw ko mun la ndax sa biiru njaboot mën nga see gis ku mel nii sëñ Baye Jaxate nee nañ ñépp li ñuy tontu mooy laa foofa nee na yonent yépp li ñuy tontu mooy laa déedéet ku mel nii mosuñu ko suñu biiru njaboot yoxi bu nii malaaikul baaxil xaddim li waccihi maha falaahin laa yëri mboolem malaakay yi yàlla yépp dan maa bëgg ba ci loolu sax ci lañ wommate ak texe jox ma ko man seexul xaddim xad wadda nii man amunoo fil jinni li wacci baaxin motimul bilhan mi mbooleem ñi gëm yàlla te doon ay jinne ñépp yàlla leen wommat ba ci mën la ñu jëbblu bu doon xeeti bayit yoo xam ne boo ko dégloo settantal ko di nga xam ne ku dul Sëriñ Tuubaa rek Sëriñ Tuubaa la ëpp doole moo la ëpp ci yàlla moo la man fii moo la man fii la ko si Ibrahima Masson wax waxoon ni ko nihaayatu ahlilaahi saarat bi daay walihasa faaxa duna nasiri nee na terminus su gaa yu baax yi nga xam ne lu waay jàmbaare jàmbaare ko weesu nee na foofee na sëñ Tuubaa tàmbalee moom sampe fa aw xel dem kenn xamul sëñ Musaa Ka nee na ko lefum yàlla mam xàllaloon rek yàllam ya fëñtalee la Seex Bamba naa wu xel tax mu raw gaaya <laughs> euh, du ñàkk du ñàkk danay dal ñu bari dana may dal danay dal ñu bari ngay ngay ngay ngay ngay jàng jékki-jékki yam ci bayit boo xam ne faw dangay taxaw faw di taxaw soo taxawee da ngay jàngataat bayit wi peese ko xoolaat borom xool ki ko wax mooy li ñu doon waxtaanee démb rek ci promobile euh, mooy euh, moom bi mu koy wax logiquement warul woon mën a ñàkk am sax ay damm-damm bu ñu doon jubbanti araab yi sax dañ ne ay la yéwén jaadu na parce que fa mu ko doon waxee xel mu dal. ak environnement bu sell bu ko war a mën a tax mu wax araad yu jub yu set sax amul waaye nag ku ne xam na ni moom dañ ko doon ilham muy wax lépp lu sun borom ndax lu muy wax rek fekk na bu dee lu muy ñaan la dañ ko koy may ne ko ñaan ma bu dee lu muy def noonu waaye bala ñoo ñëw ci sëñ laat Lahat euh, sëñ Jibril bàyyi laat du ma bëgg balaa ma dama bëgg balaa mu ñëw ci ci thème bi sëñ Abdou Lahat Mbaye da koy sofe ndax moom damaa xam kii am am na kontaagam xam nga dafa am genn xasida ñuy wax man dan na nii dama mës a seetaan ñoom ñaar ñu di ko def defin boo xam ne kéemaan la waaye radd yooyu dafa mat di wax ndax lépp lu baax rek sëñ tubaa soobu na ca wax naa ko wax nee naa sëñ tubaa ñu baax la fi fekk ay mag ñu sell ñu bëgg lislaam mu topp leen ba jot seen ngërëm door soobu nag mbirum sa borom nga xam ne kenn ku ci nekk làq na foofu nag leeral na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk cër bi nga ko wax moo xam borom ngir yi la moo xam borom wérdi yi la moo xam borom tariixa yi la kenn ku ci nekk nee na la dand ba am moo tax suñu dama lay bàyyi nga ñëwal maag suñu laat aw yaa ma koy sofeel ndax moom xam nga point am salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu benn nuyoo la waaye jox naa ko ñëpp fa innani axdimu bi Mustafa am na koo xam yóbbaale ñëpp Mamadou Muntaqa yàlla na fi ko lool te man wér mu yóbbaale ñëpp nag man zanani xayral xadimil Mustafa. moom attan na ñëpp waaye ñëpp attanuñ ko moom Cheikh Mamadou Mountakha man zanani. man zanani xayral xadimil Mustafa. ma ñëw ci jataay bi nuyu Serigne Amidou ak Serigne Jibril ñu yóbbaale mboolem ku toog ci jataay bi. fa innani xadimuhu bi Mustafa. waaye faaw mu nuyu Serigne Jibril seen ak Serigne Abdoul Ahad Dieng sama xarit mu yóbbaale Abdoul Ahad Mbaye mi jàng man zanani. man zanani xayral xadimil Mustafa. Sëriñ Bamba nee na ku njortu ni nekk naa dara lu dul liggéeykatub rasulillah yi fa innani axdimuhu bi mastafa foofee nag la Sëriñ Tuubaa ma ne ñëpp mooy damay liggéeyal yonent bi ñu ne ko noo koy defee mu ne ni mu ko bëggee moom rasulillah yi noonu laa koy defalee fa innani axdimuhu bi ma istafa nam ko tànnee noonu laa ko koy defalee moo tax mu mën ñëpp moom Sëriñ Tuubaa axdimuhu ila duxulil janna dama koy liggéeyal ba keroog may tabbi ajjana ajjana ya nga xam ne daari xaraari wal munna wal minna القرار والمنى والمنى àjjana ya nga xam ne mooy këru tedd nga di këru mébét ya di këru xéewal ya Serigne Bamba nee na man danano yakunu abada Serigne Bamba nee na yow mi njort ni ginnaaw rasulillahi ku mel ni man Ahmad Bamba dina am wuyu ma yurdi billadi ka xidmati bada moo tax Abdoulaye Dieng wax na dëgg Serigne Touba moom pee la keneen ku ne jëlal deux jëlal trois jëlal quatre waaye pee moom Serigne Touba jël na ko faqarrawo dalalu walidla moo tax yow mi njort ni ne ginnaaw rasulillahi am na ko liggéeyal ba mënta Serigne Touba yow ma ko njort yow la Serigne Touba waxal faxarrohoo waru nga adda laalu réer nga wala it laalu da ngay réerale yow miy won sa mbooloo ni ginnaaw yonent bi man la déedéet ginnaaw rasulillahi xaadim rasul la moo tax Serigne Touba ne faxarrohoo dalaalu it laalu yan xaaduli minu bil xalaal yàlla woo matal na ma lépp lu dagan man Serigne Bamba moo tax tagg naa ko moom rasulilah ba nga xam ne mooy li bër wali moo tax tontu baa ngoog sëñ Tuba neen tagg boo xam ne lottal la bépp waliyu kun ni waliyu nga nga am cër ci yàlla sëñ Bamba nee na wax naa ko rasulilah loo xam ne kun ni waliyu nga mosoo ko ko wax ak koo mën a doon tagg naa ko ba nga xam ne mooy maa yomba tagg boo xam ne faral na ma sama iib ak samay bàkkaar man Serigne Bamba tagg naa rasulilahi fa xeetu galwaa tagg boo xam ne fegal na ma samay noon ak bépp lënt lënt min nii qimmatun qad laazamat minni ilayhi jóge na ci man jëm ci rasulillahi minni ilayhi minni ilayhi qimmatun qad laazamat liggéey boo xam ni rawdatuhu ila alqiyaami usimat rawdatuhu ila alqiyaami usimat Sëriñ Bamba ne liggéey gi ma liggéey rasulillahi dañ koy màggal te rawdoo ma man xaadim rasul radiyani sibtu jaylani si Abdou Qadir Jaylani nee na ma jërëjëf Ahmadou Bamba nangu naa dogalu yàlla ginnaaw rasulillahi yow la ala ridwaanu lazi bi alaani waaye Ahmadu Bamba rek ca gore moo tax mu ne ko yow yàlla yàlla fay la ngërëm lu rëy yow Seex Xaadir Jeylaani badiyaani sibtu Abul Hasan nee na Abu Hasan gërëm na ma man Xaadim Rasuul alay ridwaanun yuqallidul Hasan waaye moom Abu Hasan yàlla ko yàlla fay ngërëm lu rafet laa wax radiyaani sibtu Tijaani Seexuna Tijaani Sërif gërëm na ma man Sëriñ Tuubaa alay ridwaanun mubiidul jaani yàlla am ngërëmal yàlla moom Seexuna Tijaani Sërif ci ngërëm gi ma gërëm yaani xulafaa ah, am ñi ma doon tudd sànq baax nan de waaye seen kilifaay gërëm ñooñu mooy ñan raddi yaani xulafaa arbaa raddi yaani xulafaa arbaa Ababacar nee na sëriñ Bamba jërëjëf Omar ni sëriñ Bamba jërëjëf Ousmane ni jërëjëf Aliyu ni jërëjëf wasturi dal muqarrabi man mut ah, ndekete yoo malaaka ya jege suñu borom ñoomit it nga xam ni ñoo dar mostari dal muqarrami na mutbaa képp ku jege suñu borom làq naa sa ngërëm mën borom Touba. man lam yakun aniya yarda fal karim. ñooñu gërëm nan waaye des na man lam yakun ani yarda fal karim gaa yi yëpp seen gërëm neex na waaye daam bu ko dàq xam bu ko dàq yàlla mi ko sàkk ku gërëm man lam yakun anniya yarda fal karim ay waay ay waay sunu waa ji yàlla gërëm na ko ku ko xarab lu mu koy wàññi raddiya anniya ridan laysa yarim man lam yakun anniya yarda fal karim raddiya anniya ridan laysa yarim jadalillahu almustafa xayral jada moo tax yàlla na yàlla fay rasulillahi gën gi fay laa wax kama taqabbala wa waadana aljada te nangul ko lépp loo xam ne dig na ko ca fay nga moom rasulillahi salaatu man karamu yàlla xëy may julli ci moom julli gu tedd goo xam ne danaa ca tase mën Sëriñ Bamba. xam nga lu ko ca yàlla fayee nee na damaa tagg rasulillahi jëmbi njub boo amoon dëkk bu mu dëkk daa ñëw ci Sëriñ dugg ci moom ni ko bés ni tey ku jubati daa ànd ak yow jëmmi yërmande bu yërmande amoon dëkk yërmande daa ñëw ni Sëriñ Tuubaa dëkk naa ak yow ku amati yërmande daa ànd ak yow. barke bu amoon dëkk barke daa ñëw dëkk ak sëñ tubaa ne ko ko amati barke daa ànd ak yow bo bu amoon dëkk wërsëg dafa ñëw ba ci sëñ tubaa ne ko ko amati wërsëg daa ànd ak yow xoo daan wa nuuran waridan wa baraka fajja anni fii matti faxril mudrika sëriñ Bamba nee na jëmmi njub jëmmi ngërëmu sunu borom jëmmi leer jëmmi baraka yàlla jox na ma ko ñu ne ko loolu la ko may mu ni tagg may tagg moom ma ko may te ko amati nag da nga ànd ak man sëñ tubaa xamul ko waral li tax ñuy waxtaanee xam-xam Serigne Touba mooy jëmmi xam-xam Serigne Touba lu ko daan topp xalima kéetu tabax satala sijaada loolooy gunge Serigne Touba fu mu jëm Serigne Touba mii ñuy waxtaanee mooy jëmmi xam mooy incarnation xam-xam lan mooy gunge suñu waaja Serigne Touba lu ko waaye xamal lu dul daan na ko yor lu dul xalima kéetu tabax satala sijaada leneen dawul topp Serigne bi. moom moo incarné jëmmi xam-xam sëriñ am sëriñ Touba moo incarné xam-xam ndax fu mu mën a dem moom sëriñ bi xalimaa koy topp kayiti tabax satala ga muy yor sijaada ga muy jullee leneen daawul topp sëriñ bi moo incarné jëmmi xam-xam moom sëriñ Touba léegi nag incarné jëm ko incarné moo tax mu xam lu kenn xamut xam nga loolu tax mu xam lu kenn xamut daa jàpp ci li nga xam ni ku ci jàpp raw ñëpp gën koo bëgg ñëpp muy alxuraan dama ni. alxuraan mooy yëkkati gaa yi sëñ tubaa daa def alxuraan nu ko kenn defut alxuraan defal ko lu mu deful kenn xam nga sëñ tubaa li tax mu yëm nit ñi alxuraan da koo fayal boppam yonent bi fayal ko boppam yàlla fayal ko boppam moom ñetti fay la am uniltu biha kaw ni ladallahi za sidqi alxuraan da koo fayal boppam alxuraan dem na ba jàpp ci loxoom di ko wan rasulillahi naan ko maskan bil kitaabi maska daririn bi yadil qaaidil basiril muhin alxuraanu karim doy na sëkk ci bëgg gi mu ko bëgg kenn bëgg ko bëgg gi sëñ Tuubaa bëgg rasulilaay kenn bëgg ko am xamul tax ku ne joxe na la nga am waaye joxe sa bopp mu sëñ Tuubaa ko def joxe sa bopp rasulilaay sëriñ Tuubaa moo ko def xam nga dammi wa ahli wa awlaadi fidaa u lahu habdan qadiman muska allahi sanada jox ko léppam moom sëriñ Tuubaa waaye bi mu ko joxee léppam sañ am dog koo jox te yàlla tax fa sëñ Tuubaa ma ne war gaay mooy lu mu mës a jëf xaaru ci fay suñu borom da koy def te yàlla tax lu sëñ baa mu sa def yàlla tax lépp lu ko ci dabit doo ko cee fekk waaye ba mu koy def intention yàllaa tax tagg gi muy tagg rasulillahi dani bal imtadaxtuka yaa mawlaaya mubtaqiyan min karida baax damaa tamhu min xati aati gi ma ne tagg yëpp sàkku sa ngërëm rek laa ci bëgg bëgguma ci leneen ngërëmal yàlla laa ci bëgg waaye tagg gi muy tagg rasulillahi salaam da koy tagg moom sëñ tubaa waaye dañu ko tagg gi ma lay tagg wa ma madahtu kan nu balaa yi wa ma madahtu kan nu balaa teewul moom sëñ tubaa bind juróom-ñaari ton ak genn wàll ci lu xam mu naan dee daa di jeex de li newoon ci xel mi laa génn de waaye li ne sama xol du jeex daa yi jeex nan li woon sama xel mën naa jeex waaye li ne sama xol mombal ko rasulaay du jeex walla wala na wa nafsu sëñ nga xam ne kon moom bëgg bëgg rasulillahi saa salaam moo tax mu ne billahi lazi laa ilaha illa huwa xayaati wa mamaati wa arakaati maa rasulillahi maa ngi waat man sëñ Touba sama dund sama dee sama yëngu sama dal lépp jox naa ko rasulillahi bëgg nag lépp lu mu bëgg lu mu bañ na bañ ko xam sëñ Touba foofu la ma nee gars yi yéent bëgg da koo bëgg li mu bañ ma bañ ko aqsamtu billahi inni li nabi abadan xillun wa waaye wa maa abaaw rek yaa baaw nabiyunal Mustafa xayru wara xaradi fii kulli shay'in wa maa abaaw yaa baaw lépp lu Yonent bi bañ Sëriñ Tuubaa bañ ko lépp lu Yonent bi bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg ko foofu la Sëriñ Tuubaa ma ne ñëpp bëgg gi bëgg Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam moo dem ba yóbbu ko ci xam nga lu ko lu ko bëgg Rasuulullaahi may Yonent bi da may ba may ko boppam Rasuulullaahi day may Sëriñ ba may ko jëmmam moo tax am na benn naaru gànnaar bu ñuy wax Cheikh Abdoulaye dandi ko ginnaaw yàlla dan yonent bi tëj buntu yonent yi duñ lox yonent nga waaye kon ma tuddee la yonent ndax yow li nga fi def du jëfi wàllu yu sañ am seeb lay xaliwu yu ca gànnaar moo ni sëñ tubaa yonent bi moo tëj buntu yonent yi waaye yow li nga fi jëf man du ma ko tuddee jëfi wàllu yu ndax lii wàllu yu mënu ko ndax bu ko wàllu yu mënoon beneen wàllu yu toppandoo law lam takkun bil Mustafa xotimat xul naa la anta rasulu law lam takkun bil Mustafa xotimat naa la anta rasulu waaye xam nga yow sëñ Tuubaa loolu la yàlla defal sëñ Ibrahima xale mooy wax de lakinna lu asanaat hunna law qusimat yawmal jazaa bayna ahli kufri maxtarafu nee na yow sëñ Tuubaa defal nga yàlla loo xam ni bopp yéefar yi ne ci àdd bi yëpp jaamu nga yàlla lu doy ni boo doon ko tàbbali ñëpp àjjana ñëpp dugg àjjana sëñ am déggoo loolu de bopp yi ne ci àdduna yëpp laax bopp yéefar yi ne ci àdduna bi yëpp sëñ Ibrahima Aliou ne sëñ na yàlla jaamu yàlla goo xam ni bu woon ko yàlla ibbil buntu àjjana yëpp yéefar yëpp dugg ci yàlla def doy na dëgg la jërëjëf sëñ Blaat sëñ Jibril eh, gis nga sëñ Blaat aw yaa ngi doon wax sama sama sëñ Blaat yi waaye gis nga sama sëñ Blaat yi eh, ñi ngi ziyaara baax sëñ Ibrahima Fall làmp mi ngi topp jotaay bi nee na ma sama nuro sama nurowaale bi jàmbaar la ma ne ko nuru na la lépp tuwaar kàlla Euh, waaye xam nga day wàlliwu wàlliwu wàlliwu wàlliwu na butu la moo tax euh, tubaarkàlla fexe na ba noggatu nu ñun ñëpp rek nee na mu wàlliwu du jafe <laughs> du yomb <laughs> euh, jërëjëf sëñ Jibril ma bàyyi waat la nga ñëwaat ak sëñ sëñ Jibril Seen mm-hmm. sëñ Blaat aw fi mu dugg am na solo am na solo xam nga naw mi ibadatu rabbin la sharika lahu mm-hmm. xal bi yu dabbiru aayan tuurithul xikama mm-hmm. ibadatuna faaqat ibadati xayrina xam nga day am lool su ko nit ki di wax sax su amul su amul euh, su amul cëslaay su amul delluwaay. Uh-huh. mën nañ jàpp ne day waxee ngir cofeel uh-huh. waaye moom mi ñu koy waxal lam waxal boppam. Uh-huh. moo ko gën a yéeme. te ku ne xam na ne digganteem ak yàlla su nee. naw mi ibadatu rabbin. fi ngay taxaw mooy bu nee sama sama sama sama sama samay nelaw sax jaamu yàlla la. Ah? léegi nag su boobaa fi ngay jàngate mooy ndax li nga war a njëkk a posé question mooy ndax daana nelaw mhm. amul woon jot gi mhm. euh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ ablaat awa nga koy wax léegi xoruf yi niñ daan ñëwee ci kanamam kenn ku ci nekk bëgg a bokk ci biir euh, ci biir xam nga xam nga yaquudu yaquudu li ulumal xay bi mhm. yaquudu ulumal xay bi xam nga xam-xam yi nëbbu faw ak jagle lay doon ngir nga mën cee ngir mën cee doon xam-xam yi nëbb nag li li ne ci biir dafa bari moo tax ma lay bàyyi nga ñëwaat foofu ak euh, sëñ abdulahad seen mu duggaatal ñu ci Euh, xam-xam bi jàpp naa lu am solo lay doon. xam nga euh, sëñ mm-hmm. Sëñ Tuubaa dafa ñëw. Mm-hmm. ngir firndeel nit ñi ni. Mm-hmm. jaamu yàlla lu possible la. noonu ni ma koy waxee. xam nga suñ borom li sëñ Saaliw doon wax ne euh, indi moom fi lu ngir ñu jaamu ko. waaye jaamu googu daf ñuy wan ni ni ma leen sant ngeen jaamoo ko mën naa ne. condition bu ngeen mën a nekk ak fu ngeen mën a ne mhm. léegi nag Sëñ Tuubaa dafa ñëw ngir ngir wane loolu si mhm. wéet ci wéetaliku ci fitna ci tawat ci lu mu mën a doon loo xamante ni bu doon nitu kese kese mu am ca ngànt Sëñ Tuubaa loolu du ngànt ca moom mhm. mu nekk ci condition yu jafe lam dëlante woon suñu suñu suñu borom noonu suñu borom di ko liñ si minal mu'minina rijaalun sadaqu gi loolu mu jël ko moom it tegoo ko lu lu wér nga xam ne responsabilité bi mu engagé diggam ak suñu borom dara dara dara lu ci manqué lu toll na tarfatal ay ne amul mhm. kon kooku laa bëgg nga indil ma dimension xam-xamam ndax tamit bu ñuy wax dimension xam-xam li suñ saali wax naa nit ñi de dañuy yéemu rek waaye duñu roy suñ dafa ñëw wane ni moom jaaruwaay bi war a nit war a jaar ci xam-xam da caa jaar mhm. ci jàng ko ci sàkk ko ci gëstu ko ci wut ko ci xam ko yi ñu def ci jaamu yàlla mu jël ko def ko xam-xam yi tamit mu di ko def par étape di yëg di dem di dem ba àgg ci martaba boo xamante ni dañu suñu borom lii laa bëgg mu ni ko lii kat moom jote woo ca wala ku ko bu sa soxla dañu laa dimbali nga xam ne yitte ji laa bëgg ñëw d'abord maanaam yitte ju kawe ji Sëñ amoon xam-xam lim ko jaraloon ak yi tamit mu tey la ko bakkanam dem sax bay gàddu mbubbam di ko jaay di ci ab dërëm te mënu koo am nga xam ne lépp loo xamante ne rek mooy mooy mooy élément yi tax nit mën a daf caa jaar ba noppi nag wan ni xam-xamam bi da koo liggéey taabat nufuusu man ta'allaqa biha <laughs> dunya wa uxra zaaka fadlu rabbi foofu rek laa bëgg nga dugg ci jërëjëf sëñ Jibril jërëjëf euh, sëñ Abdu Lahat sëñ Abdu Lahat macha allah jotaay moom hmm. Euh, am na solo lool. neex na tamit wax dëgg yàlla Mauritanie daal. waaye dimension xam-xamu Sëñ Tuubaa boo ko bëggee xam da koy delloo ci yonent bi alayhi salaatu xam nga yonent bi alayhi salaatu moom leer na nañ ci téere yi ni moom dawul liir yonent bi dawul liir dawul bind loolu alxuraan wax na ko wa ma kunta tatlu min xablihi min kitaab wala taxutuhu bi yaminika isan lartaabal mubtiluun alxuraan nee na yonent bi daawul bind mënutoon a liir dañ ko daan liiral ab leetar du daan bind dañ ko daan bindal te moo raw ñëpp nag dafa neex yàlla Seydina Jibril di ko indil xam-xam waaye yonent bi moo raw Seydina Jibril léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam nag bu fekkente ni bii dafa raw ñëpp ci xam-xam te xam-xam moom faawu bind ca la bokk faawu liir ca te bindul liirut loolu loolu nun ko mën a déggee ndeket kon bindul liiram googu ñàkk bind ak ñàkk liiram gu noppi raw ñëpp kooku miracle la miracle la ci yonent bi alayhi léegi nag yàlla ci boppam sàkk ci jaam ñi jaamu mu tudd Ahmadou Bamba liggéey yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba am garaat tudd xaadimu rasul xaadimu rasul ñi daan ñi daan euh, Seydina Anas ibnu Malikin ñi jàng histoire xam nañ ni dañ koo joxoon kër yonent bi da moo mu koy baleeg lu ne di ko def waaye teexu taxun moom mu am mu tudd xaadimu rasul xaadimu rasul fi mu doon boo ko bindoon ci leetar boo ko yóbboon Madinatu Munawwara wala Màkka kenn du ko fa moom faaw nga ñëw Touba doo gis borom te gis nga distance bi dox seen diggan digganteem bu dee distance bu ñu mën a natt ci jamono la ni ñu sore 632 ak 1852 xool ni mu sore xool yooyu sore yooyu noonu ba noppi tamit bu dee diggante bawal gi mu dëkkoon ak Madina Madinatu Munawwara ni mu soree ci distance bu ñu mën a wax tamit ci distance su luy naaw wala luy daw waaye Sëñ Tuubaa waxoon ni xam-xamam ci yonent bi ak fu ko yàlla teg ak nu mu jege yonent bi yegg na ci ni distance boobu amatul seen diggante moo distance boobu amatul digganteem ak ak yonent bi dimension amul distance ñoom ñaar donte jamono sorente ne leen si diggante dëkki son waaw waaw ci nim waaw ci nim tëgge ba ci daal moo ko wax dañuy dañuy yàlla damaa naw sama diggante yonent bi ba def ma ma mel ni ku bokk ak moom deret mel ni ku bokk ak moom daan fréquenté ci ñoom demal ci muqaddimaat dañuy yu sayyiru nii kal aali soppi na ma ma mel ni ku bokk ak moom deret wa sax bi soppi ma mel ni saxaaba ya daan ko fréquenté ba noppi wali xaada siran raaba an xayril mox yi ba noppi yàlla jox ma secret yoo xam ne ku moom yàlla ump na la foofa kon génn na fa ñëpp moom na xayril mox yi la wax loolu nag sosaluma ko mbindam la am na feneen fu mu wax sax na xam-xam ak jaamu yàlla ak liggéey yonent bi yegg naa foo xam ne damaa gërëm yàlla yàlla gërëm ma te radiyallahu anhum wa radu ñu jàngal xam ngeen aw bàkk la nag radiyallahu anhum wa radu garaat la sëñ bi daa teel a wax ne damaa gërëm yàlla yàlla gërëm ma ba noppi yàlla woo ma ba ma ñëw mun ma secret yii moom sama secret bopp la jël ko te nga wattu ko radiya anni man raditu anhu wa qaala li sirri yaquz wa sunhu kon xam-xam boobu mu ñëwaat miracle la ci moom yonent bi dawul bind léegi nag ñàkk bindam googee ak ñàkk man a liiram nga dañ koo denc da koo denc rafaatale ko sëñ Tuubaa bi sëñ Tuubaa ñëwee moo tax bind bind ci arab sëñ Tuubaa ko dàq lépp ndax naso an yi nuurul lisaan wal kitaab azmaan xidmati la da ahli kitaab sëñ Tuubaa ko dut moom moo la dàq bind arab anaxu wala arudu wal bayaan lii sulibat wali bi ayam outil yi tax nit mën a way nit mën a bind sëñ Tuubaa nee na yooyu yàllaa ko nocci jox ma sajaba lii la wax dañ ko nocc jox ma muy naxu grammaire wala arud ak poésie wal bayaan ak xam-xam bi nga xam ne mooy tax li nga bind leer bu nit ñi mën ko xam nee na yàlla dama koo jox nga xam ne kon ñàkk mën a bindu yónent bi moom lañ rafaatale sëñ Tuubaa da ngay dem ci sëñ sëñ Musaa Ka dani la yónent ba daawul way te xam bindu te araf la jagleel sëriñ tubaa ba muy taalifal waa Tuubaa kon way te xam bindu te la jagleel sëriñ Tuubaa ba muy taalifal ba Touba léegi nga gis ni kon ñi di dikkoon tamit dooni borom xam-xam aha nga jëruñ ko waa Touba nga gis ñi amoon xam-xam daan tagg yonent bi ndax xam loo ko bari le bari le bari bari loo mën a bind bind boo bind ci yonent bi sa xam-xam des na te ña fi a bind dàqoon a way dàqoon a bind dàqoon daan tagg yonent bi mhm. bañu wayee ba ba yeggal ba wane seen xam-xam Sëñ Tuubaa génn xasida goo jël ci gosom gosom gu mën a doon boo ko natteeg mbindum ku mas doon mbindum sëñ Tuubaa moo koy not am na ñoo xam sax dañuy wax ni sëñ Tuubaa nee na samay xësida ñoo raw xësida gaa yu baax yi waxu ko de sama genn la wax sama sama genn la wax xasidati faaqat xasaidal kiram xasida xam ngeen ne la maanaam not yëpp sëñ Musa sëñ Mbay daal ne fa kaabun wa xasaanoog bu sayru yu bañ demee bañ bindee ba ba yeggal la sëñ Bamba taalifub jës bu jébbal ko waa Touba. kon da ngay gis ñooñu seen yooyu yëpp boo ko dugalee ci jës bu sëñ Touba wat leen. ni ma la ko mën a misaale nag rafaatal xam-xam gi sëñ Touba rafaatale yonent bi ni ma la ko mën a koo xam mooy ni tey sëñ Amidun mii su fekkee ko mii nag benn yére boo xam da ko ba ba sax naa nga ñëpp xàmmee mu nag mu wëlbatiku jox ma ko xam ni moo ko gis di ma ko laaj. waaye bu bu xottee bu wutee yeneen yére yu bees def ko ci gaal yët ma ko te ñu mii noonu ne dama daan yët yu ko ñëpp mii léegi bu ma yëtee yu yum solugut bu ma ko dee sol ñi daan gis ni sañ amal daan sol ay yére dañ naan yaa dàq sañ sañ am moo tax nit ti topp yónent bi ak sëñ Tuubaa mu yàgg mu ne mbaadu mbaadu ji mooy day mel ni day bëgg a teg sëñ Tuubaa ci kaw yónent déedéet lépp ci rafaatale gi waaye dafa sol dafa sol daloo yi ñu ko miine woon yi ñu woon ci yónent bi ba mu yàgg mu sol ñi ko yonent bi jox te mii néewuñ ko woon ci yonent bi ñu ne ko kon mbaadu loolu nag mooy xam-xamu sëñ Tuubaa bi landi ba yegg fu mu fu mu ne mënta bañ a mel noonu nag moom sëñ Tuubaa ci xam-xam Cheikh la Diop Lamachère yi ba muy wax sëñ Tuubaa dani bu ma la ko waxal daal ci xam-xam ak ci lépp comme ni ko suñu laat waxe a waxe léegi dani gox yi ñu xam Sénégal daal wëral demal fu la neex nee na doo fa gis ku mel ni sëñ Tuubaa moom mm-hmm. nga ne ko déet Sénégal moom eh, dong du àdduna bi mu ne ñeenti ñeenti wet yet penkook sowwook saalum ak gànnaar àdduna bi foofu mën a wër foofu dunc dunc boo beree yonent bi doo gis moroomum Sëñ Tuubaa daaka xutbun la wax daaka xutbun laa fi bawalin laa fi kajurin wala fi bawalin misluhu taqiya naqiya ku sell ku baax boo ko dee wër wëral gox yi doo ko fekk ñu ne ko mu ne mu ne laabi charqin ba laabi garbin taraahu boo demee penkook sow doo ko gis maanaam ngelaw liy uppi jëm jëm jëm penk jóge penk ba sow ak liy jóge sew jëm ne ak wet gu mën a doon nee na ku mel ni doo ko ca gis ndax li li ñuy nawee nit muy xam-xam ak ragal yàlla ak dëddu nga xam ne mooy tax nit baax mhm. sëñ waa moom ci ndawam la ci rawoon ñëpp moo tax naar ba ni ko woon ala arbain ala arbain admanta fi samani ziba ñeent yi bi nga doonee ndaw nga ci rawoon ñëpp alal ilmi xam-xam ba nga doonee ndaw nga ci raw ñëpp mhm. wa taalima mën a jàngale ba nga doonee ndaw nga ci raw ñëpp wa suuf di dëddu àdduna ba ngay ndaw nga ci raw ñëpp wa nus gi jaamu yàlla yaa ci mën ñëpp mhm. sëñ Mulaay bu sëni woon jaamu yàlla moom su fekkoonte ni bii nit ñi dañoo maase doon ay jaamukati yàlla ñu def leen ak sàppe ñu leen ñu leen départ leen daw di dàq wuti suñ borom ci ku dàq jaamu nee na bu ñëpp dawee dañ fay fekk sëñ Tuubaa ndax nee na sëñ Tuubaa ni mu leen rawee ci dàq jaamu yàlla ak way yónent bi mhm. day mel ni fas yu nekk ci ab course ba noppi ñu takk yëpp jatang leen bàyyi wenn muy daw nag nee na wan bàyyi muy daw na mi rawee yan jatang mhm. ni la sëñ Tuubaa rawee ku ne ci tàgg yónent bi ak ci xam-xam isas tabaqal ubaadu kaana amaamuhum wa fi matxi xayrul xalqi xaydul awaabid la wax kon noonu suñ tubaa loolu noonu la mel ci xam-xam ci ragal yàlla ci tagg bi moo ci raw ñëpp moo tax sébér moom defoon benn définition bu leer ci sëñ tubaa ni moom nee na xam mee na nu ku bëgg sëñ tubaa ni mu koy xamee nee na day xool sob xol ak ku xam ku nar a texe nee na moom xam na ko nee na sëñ doo mas nee xam na ko nar a texe xam na ko gëm yàlla dëgg-dëgg mu mel ne dañ ne ko waaw kooku mooy kan mu ne ko ku nangu ni yàlla def sëñ Tuubaa yàggam nee na boo gisee nit nag nee na ci xol nga ne ko sëñ mu ne waaye diw nga ne ko sëñ Tuubaa mu ne defe naa ni nga ne ko sëñ Tuubaa nga ne bu ñu xooloon yëf yi nee na kooku bul sonn daa gëmagut eggut ci al imaanu moom fa man na yow man ku defe aw tawahama wala mu njort annahu moom ahmadu yu xaaki saxsun fi l laa defe na ne kenn yam nag moom ci dimension gayru muumin gëmul yàlla ñu ne ko waaw kon ku yàlla mu ne fa amma allati yadri bi annaka mufradun ki jàpp ne ahmadu ak càppaaculi fa ayqun min wuufir min mu waafiril aql nee na ku amam xelam mat sëkk-sëkk muuqinu kuulu yàlla sëkk-sëkk mooy ki nga xam ne day wax ahmadu am càppaaculi la yàllaa ko bind def ko ni mel te gis nga li mu bind li muy rëy rëy li xam-xamam di rëy rëy xam-xam la boo xam ni nee na kenn mënu koo gis boo doon wër ay ay ay ay ay doo ci gis xam-xam ilmi yaa ilmun laa tura fil kutub nee na sama xam-xam nekku ci téere yi kon yàllaa ko ber noonu waxuma la sëñ Tuubaa waaye kenn ci njabootam bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom sëñ Tuubaa moom wax na ni yàllaa ko jàngal waxuma laak waxuma laak sëñ ci boppam nag te sëñ ku nekk xam na ne xam-xam bii mu amee bu dem njàngum kese doo du ko amee waaye nag rafaatal yónnent bi la jër ak yitey boppam nag ndax daana wax ni daana wax ni ak njàmbaare dane na ci man waaye coobare yàlla ma doon gunge daan ni ni ma mel ci mel ko ni sama diggante yónnent bi moom ku defoon ni man ngaa solu daal ba am ko doo ko am kaw ni ya abdullahi xaadimal kitaab fadlun min al wahabi laa min iktisab sonn taxul nga am ko kon loola moo tax sa ibrjo masari ni ko woon nag nit yàlla yépp moom wax dëgg yàlla yaa leen jiitu nag sabiqa sabaxta jamia al awliya wa suttahum mboolem nit yàlla yi nag yaa leen jiitu yaa seen ne seen kanam nee ñépp nag yaa leen seen kanam am na fu mu wax nit yàlla yi leen ba naw seen daraja ñu jaamu yàlla ba plafonné ba naw leen ba naw ci seen i daraja liggéeyal njool màkk tagg ko ba naw leen ba naw seen daraja nee na bu na bu dajee ci pays yàlla ba bu ñëpp daje nee na id qiila man afdalul aqtaabi qaatibatan lahu acharna wa xulna kulluna hada nee na nit yàlla yëpp borom xam-xam yëpp kànfoor yëpp jaamu ko ci yàlla yëpp tàggat ni yónni yàlla yëpp nee bu ñu taxawee ca pays suñ borom ya ahmadu taxaw boo ana kan mooy seeni kilifa kuy seen chef nee na lahu moom la ñuy joxoon ni kulluna hada dan naan kii mooy suñu sëriñ ñun ñun ñun loolu si dani id qiila man afdalu aqta bi qaatibatan lahu achar naa nee na ñoom ñëpp moom la ñuy joxoon daan hada kii la kon sëñ Tuubaa yàlla sun borom mi ko sakk mhm. moo ko def nii waaye nag day jàmbaar de mhm. doo ko di doo ko catégoriser rek ci yàllaa ko may lim am mhm. yàlla moom lu waaye mën a am moo la ko may waaye sëñ day amul kem ci àdduna bépp moo taxoon sañ sañ bay jaxate sax doon ko wax ne ko sam kem amut amut ci àdduna bi fenn ba noppi nag bu jàngalee xam-xam ba noppi liggéey yonente ba noppi waaye xet li gim xet li mbindee fii kon def amut ak mën a wayam ak mën a wayu mën a wayu yónent may mën a wayu ak sëñ Tuubaa wallahi alazim la faxra waaye amul foo koy fekk déedéet amul fooy fekk mën a wayu ak sëñ Tuubaa déggug lu xam ak ñaw gum ñaw nu muy waye doo ko fekk ku ci ku moom waaye nag li ko ko may nee na yonent bi alayhi salaatu salaam moo ma wax ni bindal ci man karrama nii xayrul wala bii kutubi xam nga bëgg bind bëgg way bëgg way yonent bi boo ko teg ne yonent ma léegi deel bind ci man am na feneen dañu bachari nii xayrul wala bii kutubi nee na yonent bi moo ne ma ahmad deel bind ci man mais loolu ndigal la mu tàmbali nag bind ci moom bind ci xam-xam yoo xam ni nee na képp waxuma la waxuma la secret xam-xam ba de waaye ku koy jàng te xamoo sirru ba sax njàng ngi koy jàng képp dana la tee dem sawara loolu waxi suñ ci wàll de nee na boo même boo ci xamul dara te sellal di ko jàng rek dana la tee dem sawara wajal qasaidiya bil muxtaari junnata kulli xaari in annaari loolu waxi sëriñ bi la kon sëriñ bi xam-xam moo ndax da ngay dégg sëñ Musaa Ka naan ko sëriñ bi yaaraw gaay daa fanaane fanaani aras di xuus ca dexi leeree naa ni kon ñëw daan fanaane di di xuus nangami siècle sëñ Tuubaa leen raw ndax moom yoon wi nit ñi ci daan jaare bokkut ak nit sëñ Tuubaa jaare moom yàlla da koo koo lemal a tayyu la ko sañ bi la ko yàlla defal ndax wax na ko tawaytu tariqal qawmi waqtamti daahihi nee na man jaaruma ci ligne officielle bi waaye damaa jaar sama yoonu bopp yàlla lemal ma laf mi ma dem moo tax euh, cheikh bidol masar yi waxoon ni naziru ko laa yulfa bi sharqin wa maghribin sa morom moom jërut wër ndax dee su ko fekk fenn du penk du soowa daan ni ko wa fil bi ma ajaani lam yu kawani nee na boo demee ci araab yi li ñu xong xong ban ba yàlla doon moo ñu sëriñ bi moom moo ñu ci benn arab wa fil mi boo demee ci nit ñu ñuul li doo ci fekk moroom moom sëriñ Tuubaa kon mooy la ma wax ni moroomum sëriñ Tuubaa amul xarnu buñ ko may te ab xarnu dootul indi ku dend ak sëriñ Tuubaa sëñ Amit waaw sëñ mooy xam-xam dëgg la mooy lislaam mhm. loolu nag boo ko waxee xam nga am na ñoo xam ne moom xam nga ndeysaan. day na kéemaan dana kéemaan waaye duñ ko. <laughs> jërëjëf ndax Seydou Diop Masoro yi dañu woon. Euh, booy waxtaan ci laa tax la imin nee na bul weddi bul ragal ku lay diingat ndax fale falay sa falil munkiriina laa yaqiimu dalilu. Mhm. nee na ab weddikat benn tegtal mën a taxaw ci kanamam. ndax am na koo xam ne moom kenn ku yàlla suñu borom gi sax gëmu ko. Mhm. am na koo xam ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam li muy màgg màgg boo ko waxoon mu ak diw. Mhm. kooku boo ko nee Sëñ Tuubaa da mën naa indi leneen waaye giñ ñaa ci rasulullahi ñi ku tëdd yow képp ba guddi jot ba nga fay sab làmp ba boo yëkkati sab loxo doo gis sa cati baaram dana la leer ni la moom koo mën a tëkkaleeg sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa du moom ndax boo demee ci saayir képp nga xool lim liggéey lim liggéey waxuma baati li mu liggéey nii rek def ko installé ki nga jàpp ni moom liggéey ni liggéey bu ni toll expliqué ni ñu lu mu lu mu installé boo ñëwee ci am mbind nga nga léegi ki nga jàpp ni moom mën nga koo teg ci wetu sëñ Tuubaa waxal mbind moom ki ci liggéey dem te ñëw ki nga jàpp ni def na ko benn naar dani ko benn naar dana ko bu xam-xam bi jàllee seexal gi jàll nee na benn point raw nga ci ñëpp dani ko xawaarixuka xawaarixuhu yàq fii ka min ha rujuuha ala gayri xaalin baada maa rakibal nee na ko kii suñ ci waat doy na ci rek juróom-ñaari at li mu def ci loxol nasaraan del si waat lëgg laggut sooxut wax inu tilimut dara ci moom benn bagage bayu fa suñ Moustapha Lo nee na sëñ Tuubaa tal boppam gi ak man boppam gi ak ñibbi ak sagom gi yegg na ci lu mu yóbboon andiwaale na ko xalima yi mu daan binde sax bu ma saa bind xalima jeex da koy teg ci barab daggiti xalima yooyu sax xam nga lu mu jubloon ak ma monsieur sa monsieur sa jëf tiim du suñ Tuubaa dara lu mbir rëy rëy da koy yokk ak wallaay boromam jërëjëf jërëjëf na bi te ab xarnu dootulam ku dend ak Serigne moroomam Serigne Touba masulam ginnaaw nabi te ab xarnu dootulam ku dend ak Serigne Touba maqaamaatu waqta di xëyri kullim ku leen boole woon peeseeg maqaamam Serigne Touba kawale jey na toom taam naa jey digtal yu wér gi Tuuba ma déebu la sàkkob xarnu tey mbar newul ku baax ak ngu di lew Tuuba dem Tuuba misaalug monok Namruus ak ak xaram demoo xam li Ibrahima xam lek Tuuba misaalug monok seytaane mooy xam aadamin lëndëm gaag reyam gaa tax su jootul ba dem Tuuba misaalog monok Iblis sa mooy xamle aadamin keroog ba ruqusoo min bëggoon nay Sëriñ Tuuba misaalog Tuuba bee ñu gëm Bamba gëm gu wér ndeñoo raw ñaraw ci botte féerug Sëriñ Tuuba amul kuy dajeeg nasaraan juróom ñaari at yu ma te yàquñu tawhiidam ku dul yow Serigne Touba amoon nañ fi mbër yoo xam ni dañ daa amee fital ca baawoon Touba bee tax ñu teg sëriñ Touba amoon ngay kaso kay quartier yuy gàddu ay fital te ngay gën di gëm yónneen amoo kem Serigne Touba amoon nañ reyin yoo xam ni rey nañ ca ay kuréel. te yow ba nga fa teewee xar nga fay baax ba dem Touba amoon nañ fi doj woo xam ni kuñ jàpp teg ca kaw junay doj wa lay fam ndegam doo Serigne Touba. danañ ñëwaat ci junay doj wa daat lay fam ndegam doo borom Touba amoon nañu doj woo xam ne kuñ jàpp teg ca kaw junay doj wa daat lay fam ndegam doo borom Touba kon ñoom xamee woon nañ ko de. bi yataallaqa alladina aslamu min jinniatri duna man lam yuslimu sëñ daam ñi ngi gërëm bu baax a baax sëñ maxtaar sëy la fraise ma nga fa ca Dubaay ku ne xam na sëñ maxtaar suñu diggante ak moom muy murit saadix di ku bëgg sëñ tubaa xaadimu rasul waaye jël produit am ànd ak Touba TV ci liggéey bi ñu di ko ziyaare bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex moo faasa sëñ Omar sëñ Moustapha ñi koy jàppale ñëpp ci entreprise bi ak sëñ Madiaw mi nga xam ne nii waxtu wu nekk day wax ne Touba TV mooy sunu tele teyit lépp lu ñuy jàllale rek foofu la ñu koy jàllale kon ñu ngi koy ñu ngi leen sant bu baax waa La Fers gépp man nag ku ne xam ne dama fa am cër boo xam ne nii sama cër spécial la bu bokkul ak tele bi di ziyaare baax waare baax bu baax sëñ Xaadim tàll borom original moom it muy sunu xarit di sunu wëllëre di nuyu euh, magam soxna maam Bousso maam Jaara maa ngi koy nuyu baax di ko ziyaare waa kuréel kenn du sëriñ bi ñu ngi topp jataay bu baax sëriñ Mamadou Thioune ñu ngi sànni xeer soona Adama ak ñoom soxna Ndiaye si week soxna Bintu Jaxate tubaarkàlla ak soxna Ñaaño Diop ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax euh, sëñ Ibrahima Fall soxna Sugaawaan Diop sa xarit waa bàyyee naa la ko kon kon soxna Sugaawaan bàyyi naa la ak Jibril sëñ Ibrahima Fall lamp mi ngi ma yónnee bay du kéemaane waaye bu ma dellusiwaatee dinaa ci ñëw euh, waa Promovilite xam ngeen ne ñi ngi ànd ak ñun euh, diirub koor gi ci li nga xam mooy émission yi waaye sëriñ Cheikh Basirou Gaye Cheikh Bas Gaye mii naa mu nuyul mu yëpp maa ngi bég lool ci di ànd ak ñoom ci euh, liggéey bi kon sëñ daam dañu àndandoo dem publicité euh, dellusiwaat ci euh, plateau diwaanu Ramadan tey jii ci gaaw bi. هل هلاله باليمن والبركات شهر من جل جلاله خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وسهيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وسهيبا بلا عدد bëgge guubu saf aleen bu neex ah. salaamaaleykum maaleykum salaam xam nga li nga fubal sa àdduna yëpp lu ma ci dàqal ah. keroog ba nga duutee la bëf <laughs> boobu nag yow laa ko tuddee merci euh, vous prenez de l'eau minérale légère Gabi euh, Oui. Sewo. Ah oui, Sewo, bien sûr. Gabi. ndox mu sell taw yo égal Sewo. Sewo. L'international. Très légère. Bonsoir. Je tenais à te remercier. Derrière mon frère. J'ai découvert CO grâce à toi. Et une fois bu, goûté, c'est le ah, fonk sa yaram bokk na si di jëfandikoo ndox mu sel saa yu ñu namee naan ndoxu waalo la ñuy taamu ndoxu waalo mii di ndox mu woyof ndox mu neex saa yu mbooloo dajee waalo di teraanga bi ñuy séddoo ndox mi seral xol te yokk mbégte jot sa waalo rekk naan ba doyal ak butéelam bu jëkk bii neexatee neexa yóbbaale fu jotaay amee solo waalo du ko wutee mooy ndox bi gën naanal waalo ngir faj sa mar yokk sa wér yaram ndoxu waalo baax si kër gi di àndandoo si liggéeyukaay bi ak sax bu ñuy tàggat yaram ni ko mag ñi taamoo noonu la ko xale yi bëggee ndoxu waalo foo dem fekk ko fa ndax am na fépp ñaar fukki rekk lay jar ku nekk ak bosam waalo la qualité accessible à tous yaay boroom kéemaan sëriñ Modou Bosa Dieng waxtu mbégte yii lay àndal boisson punch neex lool di la jox càkk bu amul feneen moo gën a neex foo dem fekk ko fa kooru jàmm ndogu yu neex ak boisson punch bu waxtu xewlu jotee dañuy namm naan ndoxu waalo baax si yaram woyof neex gën a sell ku ne mën koo naan di jar ñaar fukki dërëm ndogu bu sell ak ndoxu waalo hamdi wa sukuri La Flèche. di ngeen ma wax boisson la de waaw waaw ay canettes yu mag ak yu ndaw ay boissons yu nekk ci bouteilles yu mag ak yu ndaw waaye la fraîche yemul foofu ak yéen de la fraîche am nañu ay mayonnaise yu am solo pot bu mag pot yu diggu doomu ak ay bouteilles yu yemamaay yu saa su ne mën nga koy wétali ko ketchup nag ñoo ko dàqale Sénégal bu mag ak bu ndaw nekk tomate pure ñu defaree ko ci anam gu sel am nañu ay macaroni am nañu ay vermicelle am nañu itam petit pois la fraîche boisson la mayonnaise la ketchup la macaroni la vermicelle la petit pois la mooy société bi leen indi li ngeen soxla ci wàllu dund waaw waaw boole ci di leen wéttali ci bépp xew-xew boo leen am moo xam ci njaboot gi moo xam mu doon xew-xewu diine la fèche muy àndandoo bi ngeen taamu ndax moo gën ci yéen jokkoo leen ak ñoom moo xam grossiste la wala kuy jaay détail wala ku soxla ci biir këram ci 77 335 62 62 wala 77 031 00 00 la Flèche moom la ñu tàmm ndax moom lañu moom inna allazina ila sarsara qad qasadu ziyaarati faarahu daarayni awsaar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 شهر من جل جلاله رمضان هل هلاله باليمن والبركات شهر من جل جلاله رمضان هل هلاله باليمن والبركات jërëjëf waares yi ñu gërëm bu baax a baax eh, sëñ Mbacke Mbodj ñu ngi koy siyaar baax ci production bi ak eh, sëñ daam ci réalisation bi sëñ Atoumane sëñ Pape Cheikh Bey sëñ Mansour Gueye eh, jekk baylaat sëñ Jibril dem nañ publicité ñu gërëm bu baax a baax sponsor yi nga xam ñoom la ñuy àndal ci plateau bi ci diiru weeru koor bi ñu di leen sant di ñaan taalibe mbokki taalibe yi Eh, di wax ne ñoom it ni ñu jàppee ci liggéey bag nañu yéen it ngeen jàppale leen ci liggéey bi eh, barakalaa ñu ngi ziare sunu mag sunu xarit soxna Seynabou Thiam moom sëriñ Abdul Hakim eh, di ziare monsieur le ministre ak coach tubaarkalla di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex bu baax a baax sëñ Jibril ginnaaw bu sëriñ Jibril seen daane li ci ay abyaat yu kawe damay ñëwaat ak sëñ Abdou laxat Dieng sëñ Abdou xam nga la sëñ Musaa Ka wax ca way wa fa kaabun wa asaanu wa buusayri bañ demee la Cheikh Bamba wax yoon nen lu tax ñëpp ñëw Tuubaa xëlëf-xëlëf yi mu ne nag bañ demee ñoom la kenn melaatut ni moom ci way ba tax ñëpp xëlëf-xëlëf ji daw ñëpp ñëw Tuubaa mu ne arab dootu way ngir moom ngir moom te loo mal na koy ajam bi xarnu jébbal nañ sëriñ Bamba moom Tuubaa bu ab jant fenkee ay bidiw daal di maasoloo sëriñ bee di jantub yàlla leeral na waa Touba tey bu ñu ñëwee ci xam-xam sëñ Abdou Lahad Aw daaneel na ci sëñ Jibril seen ñëwaat na waaye sëñ Jibril dafa wax lu doy waar mooy diggante bi fi yonente bi alayhi salaatu salaam jógee ak bi sëriñ Touba feeñee bu sëriñ Touba di wax day mel ni weer wii wala démb la fi yonente bi jóge ngir jege gi muy jege taarix bi ak cofeel gi mu am ci moom ak ni muy rappelé yonente bi ñi nga xam ne ni la Euh, fa huwa al wasilatu fi sirrin wa fi alani nga xam ne moom ni mu ko ni muy jàngale yonent bi saa su nekk day feeñ ci ne ah ki may wax kat mooy sama sëriñ ki may wax mooy sama wasila ki may wax moo dox sama diggante ak yàlla ki may wax moo mel nii moo mel nii moo mel nii est-ce que kooku loolu mu jóor ci digganteem ak yonent bi dana tere dana tax mën naa tere nit ñi am beneen beneen yëg yëg beneen wàccuwaay lu ñuy yëg ci moom cofeel gu raw loolu ndax léppam dafa seey ci biir yonent bi alayhi Mm-hmm. yàlla na yàlla tax dafa tax yàq sëñ bi ak gaam yi sëñ Jibril kàddu yi rafet na lool tubaarkàlla mm-hmm. waaw xam nga sëñ Tuubaa moom mën nañ koo jàpp rek ni mooy mooy rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ndax daa wuutu rasulullahi ci diineem ji wuutu ko ci xeetam bi boo xoolee euh, diyaaleem bu rëy boobu nga xam ne diyaale woon na ko ci tukki bi daan ni ko sun borom yaa rabbi innaka xulta ala lisaani nabiyika ana li kulli ahadin daaran fil janna waa daaran fi naar fa isaa daxalal janna kusifa lahu daaruhu fi naari fa xiila haasihi daaruka law lam taabudillah wa xiina abata wa daxalal janna fa hiya tuusu si di nga ci dégg ni digganteem ak rasulullahi dara du ko ci ndax dana yàlla kat yaa wax yonent bi jottali ni képp kuy dund ku ne am na kërug àjjana am na kërug sawara su jaamoo yàlla ba dem àjjana du tee dees na ko woon këram ko ca sawara ni ko kër gii lan la waajalul ci sawara boo jaamutoon yàlla fii ngay dugg waaye ginnaaw jaamu nga yàlla nag ba dem àjjana sa kër gii ab yéefar koy dëkk waaye ba tey bu fekkee ni jaamuwoo yàlla ba dem sawara it des na la woon sa kër ga ci àjjana ne la kër gii lan la waajaloon ci àjjana boo jaamoon yàlla fi nga jëm si waaye ginnaaw jaamuwoo yàlla nag sa kër gii ab jullitu koy fa isa kaana al amru kazalika fa haulaai yaslumuuna nii wala yat wa yaddoxoona nii wala aslimu minhum wala antaqimu minhum noon yi maa ñoom yaa nu boole ñu doon say noon di samay noon ndax yow ku la noonu rek samam noonu la léegi nag duma leen du ma fayantoog ñoom te duma ma ñaan nga alag leen waaye maa ngi lay ñaan asaluka manazilahum fil janna seen kër yi ci na la bëgg nga may ma ko nee na fastajaaba lillaahu wa malakamiha yàlla daal mooy wuyu ne ma may naa la këri àjjana yi fala ma taxaaxtuha anaha lii jaxaltuha haddayan li ahli badri ba mu wóoree ni kër yi moom naa ko dama ne jox naa ko addiya sahabatu rasul moom nga dégg sëñ Tubaa naan ataytu sahbahu manazil al aida fi l jannati lati xamat xaman hada xan xasdia wali ahadi sarafar raddi anu man xamaani xan sahar nga xam ne dundam gi lu mu ci mas a am ak lu mu rëy rëy boo gestoo rasulillahi la koy jóor bu gestuwaatee saxaaba yi la koy jóor moo tax yàlla def ko bi yonent bi demee mu tànn ko def ko mu wuutu ko ci diinam gi wuutu ko ci xeetam bi moo tax am naar dani ko ala ila daari salaami wa tuuba isa xifta min bi zamanin xutuuba li tasfara min xawsi zamani bi nasratin tunaalu bi xusnul maabi wa tuuba cheikh maami lam nee na ñaari bayit yi abdallah moo ko wax sëñ tuba waaye ci gémmiñu sëñ tuba laa ko mokkale nee na ko si waxtu yor mu daal ni ma ndax mokkal nga ñaari bayiti abdallah yi ma ne ko déedéet dégguma ko de mu daal ni ma ala mel ila daari salaami wa tuuba isa xifta min raybi zamanin xutuuba li tasfara min xawsi zamani bi nasratin tunaalu bi xusnul maabi wa tuuba dani bu fekkee dangaa am jafe-jafe adduna ak jafe-jafe àllaaxira naar bi nee na rombal dëkk yëpp ñaari dëkk rek laa la may nga wàcc fa muy daaru salaam wala Touba nee na boo fa demee loo am ci jafe-jafe adduna ak àllaaxira ka nekk bu seen bët yi nee jàkk nga gis ko mu gis la nga xam ni moo wuutu rasulullahi alayhi salatu wasalaam mboolem jafe-jafe boo am ci adduna ak yàlla faa saafara ko daan ni ko li ma ci gën a ñor nag mooy mooy xawsu zaman yonent bi alayhi salatu wasalaam moo doon xettali jamonoom waaye bi mu demee moom la yàlla waajal def ko muy xettalikaayub jamono sëñ Tuubaa nag daan ni Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana li ma gën a neex ci way wi mooy lim dëggal wax ni ma damaa tuddee xawsu zaman te xawsu zaman googee moom la ma yàlla def ndax maa wuutu rasulullah alayhi salaam ci diineem ji wuutu gi mu wuutu rasulullah ci diineem ji moo tax képp ku ko wuutu day mel ni yaa wuutu rasulullah ci diineem ji xam nga sëñ Tuubaa fi mu toll nii sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo ko fi teewal toog ab jataayam xoolal digganteem mooy la yonent bi waxoon ni badal islaamu garib wa sa tàngoodu xarib fa tuuba lil xuraba l'islam daa feeñ ci ak tumuranke daan ni dana delluwaat nag ci tumurankem nga waaye bis bu delloo ci tumurankeem ga texe ñel na woy tumuranke ya tey jii kan moo tumuranke ci diine ki gën a tumuranke ci diine lislaam ginnaaw rasulullahi mooy seexul xaddim mbooleem këram yépp lañ tas mbooloo mi ko boole loolu lépp ñu tàqalikoo ak moom mu ñu xusuur ya xalat wal ahlu anni tafaraqat li mat yi lës ya xanhul mat yi xasiyo samay kër wéet na samay daara tas nan ko te li ma ko jiwbe mooy tag gi may tagg rasulullahi te lu ma ko tagg-tagg lu tax moo jot ak ji nga xam ne moom laa ko war a jox nga xam ne wuutoom gépp dundam gépp xarakaatam yépp rasulullahi la ko mas a jox adduna jox ko àllaaxira waaye nag rasulullahi waajal na ko ndax ñoom ñaar ba yàlla di tànn rasulullahi mu gën ca azal fa la tànnee tamit bu demee ba bàyyi koo fi mu tànn Sëñ Tuubaa mu wuutu ko waaye ca azal tamit Sëñ jiitu dafa am naar bu ñuy wax Abdullahi ibnu Salaah ku mënoon alxuraan la ku sëñ tubaa fonkoon ndaa am wax ju yéeme ju wax ci sëñ tubaa dani kuntu aq kuntu yowman ak xisbi falama fataxtu almushafa fa iza allahu tabaraka wa taala alqadiru ala kulli shay'in kashafa li yowma alastu bi damaa tijji sama téere bi di jàng alxuraan yàlla mi nga xam ne dara tëngu ko daal may wunjil bis bam sadkeeru yëpp ni leen alastu bi rabbikum nee na fa aayantul waaqia ma jàkkaarlu xew-xew ba wa aayantul anbiyaa nabiyan nabiyan bi jamaaytimoom mbooloom yonent yépp ma gis lu ñu taxaw yonent bu nekk ak mbooloo mi la yàlla booleen waayentul awliyaa walli yan walli yan bi jamaaytu moom ma gis walliyu yàlla yépp ñu taxaw kenn ku ci nekk ak mbooloo mi la yàlla booleen nee na ma dawal sama bët xatta raytu sax wa huwa asi ahmadu bamba sax ma dawal sama bët nit yàlla yi ba gis sëñ Tuubaa mu taxaw nee na wa at fa at baaxa bi mu nee na bi ma ko gisee faqat ba usu fa waqat baaxal usudu at baaxu nee na ñu ko topp nag ñi ngi bari lool xaraja min al xadrati sëñ bi génn ci xadra bi nee na wata baax da xalil mu dox tuuti su mal tafat el xadra daal di gis waat xadra daal ni man yuballiqu anni ila rabbi risalatan ki li ma bëgg a jottali sama borom ana ko ma koy jottalil sama borom abdullahi ibn salaha nee na fa waqani la waxawaan yi nee na mel ni man la yàlla dëgëral ma ne ko ana mu ni ma a anta fulaanun kii du diwa ma ne ko ana ah, kay mu ni ma la afaala na su ma la ateenaa li dunyaa la afaala na summa la afaala na summa la afaala na soo ma jotulee lii ma la bëgg a wax boo ko waxee yàlla de bu ñu demee ci àdduna danaa la fa defal dellu defalaat la dellu defalaat la daal ni ko xolli rabbi yasudu nii waxal sama borom na ma dolli ndax inna atbaax yi la a ñi ma booleel ci mbooloo dañoo bari te wala uridu minhum ila ma taqaru bi ayunum damaa bëgg ku ma booleel ëllëg bu ñëwaatee fii mu amee ci man la koy njortal moo tax sëñ Musaa Ka nee na maqaamaatu aqtaabi dahaariiri kullihim ku leen boole woon peeseeg maqaamam sëriñ Touba loolu fi mu toll nii doyoon na waxtaane sëriñ Touba al maqaamatu mooy benn daraja maqaaman nag mooy jamono al xutbu mooy benn xutbu aqtaab mooy xutbu yu bari ad dëhru mooy jënd jamono waaye dëhërir mooy jamono yu bari sëñ Musaa Ka nag dani maqaamay xutbuy jamono yépp ñu ne ko waaw mu li ku leen boole woon peeseeg maqaamam waxul maqaama yi sëñ Tuubaa may yàlla may ko de benn maqaama mbooleem maqaama yi xutbi jamono yépp nee na bu leen boole woon teg leen ci ci balance dem ci maqaama yi sëriñ Tuubaa yi jël ci benn maqaama ku leen boole woon mam maqaamam waxul may waaye mam sëriñ Tuubaa mu wad leen ci ay mbiram te wad leen ci ay nattoom te am naa ci ay tegtal yu wér ngir dem Tuubaa fukki atak ak juróom-ñaar la sëñ Tuubaa am Xaadi Momar Kan di xool Serigne Touba booba Serigne Touba fukki at ak juróom-ñaar la am 17 ans di ko xol ba yàgg mu ni ko na innal xuróona bila sunya asimatahum fi raaxatayka fa yan xaadoo mahan xuda nee na kii toog ñu jàkkaarloog moom mu mel ni tout tànk ci zahir ay atam néew lool jamono ngi ñëw nit yàlla yépp xutbu yépp xawsu yépp daañu wommatu ci ñaari loxoom yii jox ko seen bopp àdduna ak alaxira ndax yàlla jox na ko nasib mi def yépp mu ngi ci digg ñaari loxoom yi Serigne Touba am ñeent fukki at taalif limaahin di woy ba ci biir mu ne zimaamul wara asri la dallahi fi yaddi wa ma rumtuhu min maliki xaalibil abi cheikh Omar Fouti dem Makka def ba ajam jeex mu dugg xalwatu di xool kan moo doon rasulullahi ci kaw suuf fu mu féete leer ji tegtal ko ni ko Mbàkke la feeñ mu ñëw ñibbi si dem Fuuta gisanteeg waa këram di topp leerug yonent bi alayhi salatu wasalaam li tax nga xam ne Cheikh Omar Fouti nitu yàlla la te sëñ Touba kenn xamul lu mu doon bi ba Touba te Touba amagul Cheikh Omar Fouti dañu ki àndal kii yilif jamono doon rasulullahi mooy moom dëkk bi te boobu Tuubaa amagul booba waa kër Sëñ Bey nga Mbàkke wax na ni sax ki mu àndal nee na ko tenkoo moom mu ne ko déggoo wax ji kii yilif adduna doon rasulullahi ci kaw suuf mooy moom moomale dëkk bii te boobu Tuubaa amagul bi mu ñëwee Mbàkke Mamour si Sali ko dalal teer teeru ko dalal ko kur kër ku ñuy wax kër Sëriñ Mañang Kodd chambre fu ñuy toog waa Mbàkke gépp màbb di ko siyaare soxna Astu Mbàkke fekk daa génnoon dem tay ba bi mu ñëwee yëgul ni omor Omar yi ci néeg bi mu raaxaloo góor ñi dugg ci biir bi ko sëñ Omar gisee daal daanub jël ndaw génn néeg bi ngir jaxasoo gi mu jaxasoo ak góor ñi suñ Momar Anta Sali daal ni sëñ moom xamutoon li xew ndax daa génnoon daa dukki woon day doog a ñëw daa dajale mbooleem lam yi mu amoon indi ko ci Cheikh Omar Fouti daan ni nag ma jéggal Cheikh Omar Fouti daan ni ko naa la yàlla jéggal na la ba jël jéggalaale say doom ak say sët foofee li la tax nga xam ne Sëñ Tuubaa moo wutu rasulullahi dundam gépp bi la Cheikh Omar Fouti bi mu gisee Mamadou Sall dani ko ki tax ma ñëw Mbàkke Bawol yaay bàyyam mooy rab bu mbooleem xarnu bii mooy yaaram daan ni Mamor gis naa mbooleem kawar yi sax ci sa yaram lépp di càllalay wurus ngir say ngërëm jamono jii kenn ku nekk ngir ak càllale langaa mu jëm ca ba àgg ca yàlla te yow sa mbóot ya ak sa mbóoti doom ja moo tax ba xarnu bi amee yile dara ja sa doom ku mel ni moom amul bii daani ku mel ni moom dootul amit soo daani mooy tax ba ñépp tabbi fil jinaani mooy rabu xarnu bi xam ne nii ren moo tax sëñ Tuubaa ni illa ala ahadin assaahu mawlaahu giñ naa ci yàlla ni man la yàlla jiital maa jiitu jiitu gi ma yàlla jiital nag amul kenn ku ko gisul képp ko ami bët di gis gis nga jiital gi ma yàlla jiital daan ni xanaa ko nar a dem sawara mooy sikki sikk mooy sikki sàkka ci jiital gi ma yàlla jiital moo tax da am ku ñuy wax fii ci réew mi ku ñu wax Ahmed Khalifa Niass mu wax ñetti wax yu am solo ci émission yi dani sëñ Tuubaa kun koy tëkkaleel ndax nan la ñu ni waru koo wax ne ilimaani màkka bu ba sëñ Tuubaa sawara la jëm ni waru koo wax mu tegaat ca daan mbooleem ñi nga xamante si nii dañoo faatu dugg ci biir bàmmeel ku ci dugg ci biir bàmmeel dina laaj ñoo defoon ak Ahmadou Bamba te ñett yi leen lu nekk Sëñ Tuubaa ko ba jàngalal boppam bu dee ku dugg ci biir bàmmeel dina laaj ku noo defoon ak Ahmadou Bamba Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana nettali na sëñ Maba sëñ Masamba Diop Sam bi mu génnee àdduna dañ ko tegee ci jaaj bi dañ koo yëkkati yëkkati attanuñ ko monsieur si nu nguwut a jóg ñu dem sëñ bi sëñ bi ne nag seen ñeent koo xam ne Ababacar tudd Omar Ousmane Aliou ñu ñëw jàpp ko ñeent ñu ñëw jàpp yëkkati sëñ Masamba job Sam ba léegi jógul ñu dem waxat ko sëñ bi sëñ bi ne nan seen ñeent ñoo xam ne Mouhamed lañ tudd ñu seet ci mbooloo mi ñeent ñu tudd Mouhamed ñu ñëw jàpp ma Masamba Diop Sam yëkkati ko mu ni ñokket jóg ñu denc ko ba noppi ñëw ci sëñ bi leeral ko mbir mi ni mu xewee sëñ Tuubaa daan ne sëñ ma jàmb Diop Sam de li tax dañ ko njëkkee yëkkati attunun ko daa am lu mu doon laaj borom te borom joxu ko woon moo tax nunguutoon a jóg dan ne ko ba ñeenti Muhammad yi ñëw daa fekk yàlla may ko loola moo tax ñu attan ko waaye bu fekkoon ni maygun ko ko sax duñ ko attan dan ni waaye li muy mën a jaamu jaamu yàlla jaamu yàlla bi li muy rëy rëy bi mu duggee ci biir bàmmeel malaaka yi bi ñu ko fekkee li ñu ko njëkk a laaj mooy noo defoon nag Ahmadou Bamba fa lañ tàmbale laaj doog a laaj des bu dee ilimaani màkka bu ba ñun Sëñ Tuubaa sawar la jëm Sëñ Tuubaa wax na ni yuhibbu nii li wàcc rabbiyal mu'id koo xam ne di nga texe ëllëg rek yàlla wommat sab xol nga bëgg mën Sëñ Tuubaa te doo ko sañ a moo tax sëñ tubaa sëñ Musaa Ka ni ko woon la dee fi wut lépp a ngi tey jii ñu denc fi yow la dee fi wut nekkatul màkkaa ki faasa ki xaay fo as njariñ sa nekk ak barke jóg na fa tey ay xottandis fépp yow mi bamba yaa di nga ñaay lu man di xew noo ngi lay yaakaar ak ay biggee noonu sarax nu làqunu yaa gën ay nijaay gën i bàyyi yaa ëpp julli gu baax ak wér na ëpp tasab gën fopp koor ak aj ak dem jàkk yaay sunu waay xamal tax suñ Tuubaa amul morom suñu am yàlla dani ko mboolem may yu baax yépp dama koy dajale may la ko dond loo la ko te su ma la ko mayee dond loo la ko sa ginnaaw kenn du du ko dondati ndono li da nga ko yóbbaale ajjana lii jutta bi tamkiini wa rusuuxi wahabta lii mawaahiba suyuuxi waaye wirasatan liya ilal jinaan ndono li da nga ko yóbbaale ajjana maanaam mboolem ku ma sa xew ci yàlla dinaa jël ak xewam jox la ko nga xew te booy xew doo xew ndoo kenn te boo xewee dootoo xewee te sa ginnaaw kenn dootul xew xew gi da nga ko yóbbaale ajjana moo tax 1852 ba léegi sëñ tubaay xew 52 ba 2021 ba ilaa ajal musamma sëñ tubaay xew sëñ dootul xew ndax yàlla ne ko mboolem ko fi ma a xew rek ak xewam dinaa la ko jox te dootoo xew wi te booy xew doo xew ndoo kenn te xew gi boo xew bu noppi da nga ko yóbbale àjjana sa ginnaaw kenn dootul xewati lii jutta bi tamki waaw lii jutta bi tamkii ni war rusooxi wahabta lii mawaahiba suyooxi waaye wiraasatan liya lal jinaani ndeysaan moo tax sëñ Moussa Ka ni ko ya sëñ Baye Jaxate ni ko yaa seet weles mësulaa mhm. aw sax fu taq lu bon mhm. ma ngir yàlla man mii taq bay tuubi dëgg la defoo lu bon mësulaa def benn bis lu warul te mhm. waa judul yow des na def lu ku wuteeti mooy la tey moo def lu jër la jërëjëf sëñ Abdou Lahad euh, Dieng sëñ Jibril ma bàyyi la nga ñëw ak euh, sëñ Abdou Lahad Aw ndax bu noppee maa bëgg bu sëñ euh, Abdou Lahad Mbaye jàngee ñu def benn tour Euh, mën koo tàggatoo waaye balaa boobu xam nga lii muy wax nii li sëñ Abdou Lahad Dieng wax sëñ Jibril seen wax ko sëñ Abdou Lahad Aw wax ko moom la sëñ Abdou Lahad Mbay jàng ci xasida yi ñu saraa ko leeral ko léegi ki koy wax bu waxee ne nii laa toll ci yàlla dañoo war a jàngat sëñ Jibril ki wax loolu diggam ak yàlla fu mu toll fan la ko yàlla toll fan la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam toll allahu rabbi wa waliyi abada azamani min kulli man tamarada xam suñ Tuubaa dafa def ay déclaration solennelle yoo xam ne day wax ne fii laa bokk yàlla aslamtu nafsi ak baayaantu ñaar yi ma fi am fu mu tegee aslamtu rek suñ borom tabaaraka wa taala fu mu nee baayaatu yonent bi alayhi yooyu nag da cee leeral boppam lu bari di sat bi anni qad jaaltu nafsi lakka wadiatan fakakta habsi dégg nga xam nga kooku moom dalay leeral leer yàlla ne moom wone na boppam jaayante fa li nafsi wa diini suma ahli wal walad wa yi lakka loolu la waxoon fële dégg nga fii def ne maa ngi seede na moom nga xam ne tey ak lu nit mën a wax li may wax rek ne ñun dañoo yàgg ci benn benn nuage mooy jabolise nañ ñu ci àddina bu njëkk ba soo joxee nit loxo sax dañuy jàpp ne murit bi sax duñ jullit dañoo fekk moom ki ñu yaakaar moom dafa am benn déclaration moom duñ ca dem dañuy xool rek yi nga xam ne ni moom la mu di véhiculer rek yooyu mooy intéressé nit ñi beneen boo ne waccaxal manaami waqooma di misla ah kulli ibadatin la day ka musla kulli ibadatin la day ka musla kon jàpp naa ni sëñ Ablaat sëñ Jibril xam naa dina ñëw ak yow foofu ci yaata ñi ngi ziyaara baax euh, sunu mag soxna Jatu Diop foofee ca golf euh, tubaarkàlla ak soxna Coro sëñ dong ñoom ñëpp ah, Fan Ñang Aja Amadou Euh, soxna Yaasin ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Mbayang la ak euh, Patouré ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye sunu mag jooju soxna Jarut yi ko ñaan yàlla defal ko tawféex euh, di nuyu sëñ Kamal fii ci rue du Sicap di ko ziyaare baax mook maître bay di mbay sama avocat boobu di nuyu Cheikh Ahmad Tidiane baax bokk la Cheikh Ahmad Tidiane Bay de Cheikh Ahmad Tidiane baax Euh, directeur général CDC euh, di nuyu soxna Adama Ndiaye yaa musli ak waa kër gi yëpp sëñ Kamal démb euh, tubaarkàlla teraanga ji xéewal yi am na solo lool di ko gërëm di gërëm sëñ Moustapha Diop mi ñu àndaloon sëñ Cheikh Ngounda sëñ Khadim Kebe ñëpp noo ngi leen di ziar sëñ Jibril ma bàyyi la ak sëñ Abdou Lahad Aw jërëjëf sëñ am xam naa dañoo am tawféex yi doomi Cheikh Abdou Lahad yu baax di topp jataay bi muy sëñ Khadim Nour sëñ xaadim Nour ku bëgg euh, jataa bi la mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di leen ziar wax dëgg yàlla <laughs> waaw te ñooñ ñooñu euh, dëgg dëgg dañoo fekk sëñ Abdu Lahat këmmal ci sëñ Tuubaa gannaaw jamonoom yu mujj yi lépp lu mu am sëñ Tuubaa la ko tuddee buy góor buy jigéen euh, soxna jaara xaadimu Nuur xaadimu Bachir xaadim nga xam ne nga xam sëñ Abdu daa mujjoon Cheikhul Xadim ñoom ñooñ ñooñ la doon tuddee kon sëñ xaadimu Nuur ñu ngi koy ñu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla boobaa léegi jataay bu ñu fi def wax dëgg yàlla yónnee na message yëglu lii nag loolu daf ñuy gën a encouragé rawatina tey jii nag bi ñu dalalee turandoo waajuram yu tedd yooyu waaw ñu ngi koy ziar bu baax te du ko nuyu ziar njabootu Cheikh Abdou Lahad képp nag ziar tamit suñu sëriñ suñu abo waaw moom Cheikh Abdou Lahad ngi koy nuyu bu baax a baax ak sama xarit Cheikh Moustapha euh, Baye Laat yow damaa xamut xam naa damay bàyyi sa waay waaye li ma bëgg rek ba tey foofu lañ nekk muy euh, dimension sëñ Tuubaa bi rek wax naa ko léegi gars yi na sëñ Tuubaa dafa ñëw ngir wane suñ borom lépp lu waaye doon def ngir suñ borom mu wan na ni ko mën naa ko te war naa mën a nekk lañ ca tële woon nit mu defati ko waaye nag ni ne nag danaa tàggat sëñ sëñ Jibril waaw euh, sëñ Mbacke. Uh-huh. baal ma rek yokkal ma son boobu tuuti. Uh-huh. dana dana di méngoo ak dimension bii. Eh, sëñ Jibril di wax. Uh-huh. tubaarkàlla sëñ daam jërëjëf sëñ Mbacke ak sëñ daam. Eh, arriéral ma son bi nga nga wax. gisee ne jàppee ne mer na déedéet damaa am lu ma naqari mer moom dara mënu ma koo tax a def lu may gis rek lu naqari yàlla lu ma mënta faj loolu daf may naqari ngir la ma naqari yàlla dong. Sëriñ Abdou Lahad Mbacke mi ngi gane àdduna ñaar fukki fan ak Yembo Akwero weeru atum 1914 ci Diourbel Serigne Abdou Lahad di doom ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak soxna. jërëjëf xam nga euh, loolu moo wax rek. Mhm. maanaam leen di tàggat ba. Mhm. Euh, gis nga loolu mu naan. Euh, lépp loo xamante ni ay samay sens suñ borom dama dama dama may ma ma ma kii ko ma ma ma domte leen maanaam domte ay sensam loolu la wax maanaam man aw ma sax lu may naqadi xanaa lu naqadi yàlla rek mu naqadi c'est-à-dire dañuy dem ba ñoom du ñu mer du ñu stressé du ñu gi maanaam lépp seen lépp day suñ borom suñ tubaa nag fexe ba moom boppam moom moom bakkanam moom léppam téye ko foofu rek laa bëgg nga dugg ci tuuti ñu waat kan mooy sëriñ bi Mhm. waaye sëriñ am sëriñ Touba ci Masaalikul Jinaan boo fa demee danga xam ni li ne ci dëndam ci xam-xam bi nga koy làq amagul ñaar fukki at te li mu génn ci Masaalikul naan ci xam-xam amul benn téere booy dem ci àddina di ko fekk Masaalikul naan sëriñ Touba bi mu koy bind amagul ñaar fukki at te lim ci génne ci xam-xam ci biir Masaalikul Jinaan waral téere boo xam ci àddina gëstukat yi defee naa ku mu ku mu neex nga teg téere tasawuf bopp njariñ masaalik te ki ko bind bi mu ko bind amul ñaar fukki at foofu la leen rawee ca masaalik boobu ngay xamee ni sëriñ tubaaku ku yàlla waajal la ndax ci biir téere ba waxuñu boppam waaye loo ci jàng xam nga ni jikk moom la masaalik buñ la ko jàngalee dëgg dangay xam ne sëriñ bi duñu wax boppam. waaye jikkoom ak ni mu nar a dundeek jamono lay jàngale ndax gëm boppam gi mu gëm boppam xam ne li suñu borom di maye moo koy maye te ku ëpp pas-pas ci yàlla yaa koy jël foofee la ko waxee falaa tuxasis fadla yi qad ala bi zi taqaddumin faqad fa tajhala fa tallu qad yabdu amaamal li waaye fal fadlu lil waabili daal di talli loolee rek moo wanee ni ca masaaliku dinaan sëriñ bi ku gëm boppam la mooy bàyyi leen jël may yàlla yi di ko jox jiitu naan diw day ku mel ne moom mënut a ne xanaa diw moomu ba muy jaamu yàlla ku mu doon jaamu du yàlla man ku ma jamonanteel du yàlla kon kay yàlla mi doon joxe jeexulut man kay su ma amee pas-pasu jaamu yàlla lu ko kenn jaamuwut mu defal ma lu mu defalul kenn xam nga nu mu ko misaale ni balaa taw dana wicc wiccal waaye gàncax gi moom li koy tooyal mooy waame muy yuréet gaa yi nag wicc wiccal lan sëñ Tuubaa yuréet la yuréet sëriñ ma mooy yuréet xam nga taw bu yuréet fu waaye nekk da nga yëg ne ngi taw wicci wiccal nag ah man du tee sax ku am yitte gu far da dem doxi ko waaye sëriñ Bamba nag yuréet la moom nee na takrimu rabbal alamina karaman fa surtout faxaral korama sëñ Tuubaa nee na yàlla su borom teral na ma ba mujj ku baax ku ne man ngay moom koo gis du ndamoo sëñ Tuubaa amul cër takrimu rabbal alamina karaman fa surtout faxral kurama nee na gaa yi baax yi boo leen ko kon ni tiitaroo a naan Serigne Touba lay tiitaroo takrimu rabbal alamina karaman fa surtout faxral kurama gaa baax yëpp dañuy tiitaroo Serigne Touba dama la ci nettali benn mbir ba nga xam ne Serigne Touba ku mu jamono teel bàyyi nga ko xel daa dajee ku di wax Cheikh Marouba Gueye ca kër Amadou Yàlla te booba Cheikh Marouba bokk na ci ñi nga xam ni dañ naan xelal la jor ndax xel ba daa rafet Cheikh Marouba mooy fukkeelu seex ak benn ci yoonu murit mooy fukkeelu seex ak benn ci yoonu murit moom Cheikh Marouba daa gisante ak Serigne Touba kër Amadou Yàlla ba mu gisee Serigne Touba xamu ko de Serigne Touba ngi ànd ak Serigne Daaru Rahmaan Lo Cheikh Marouba yëkkati mu yor daan ko maa ko sarax ngir yàlla Serigne ko sañ am Serigne Daaru Rahmaan Lo waxal kii ni ko ñun du lekk sarax ñun hàddiya la ñuy lekk. Cheikh maru ba sëñ Daaru Rahmaan leeral ko ko mu ne ko kon jox naa ko addiya sëñ Tuubaa ne ko addiya ji léwut ndax danoo noot aw nit jël seen alal alal jooja kenn mënu caa joxe àddiya ndax booba Cheikh Mourou ba mi ngi ci buur bi te sëriñ bi li mu gis mooy buur ak la buur li yilif lépp moom du ko lekk Cheikh Mourou ba yëg ci xolam ni ki ma gis bokkute ku yàlla bind ndax li nit ñi gën a bëgg la sëriñ Tuubaa gën a wan ginnaaw mooy xaalis xaalis ñëpp ko bëgg waaye sëñ Tuubaa lii la seq xaalis suñu am teg ko nii jëlal lii xaalis lu ñëpp bëgg te sëñ Tuubaa mi mi nga xam ne mooy sunub sëriñ xaalis mi ñëpp bëgg li mu seq xaalis mooy teg ko nii teg ko nii mooy yow mi ko fi indi jëlal lii yow mi am soxla ci xaalis lenn rek nga yor mu ne ñoo ko jóg gàttandu la mooy alxuraan. foon ko teg ko ci dënn ba xool ko ne ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa qalili wa qablu kuntu tabibi yaay sama xarit yaay sama soppe sëñ Tuubaa nee na su ma feebaree prévision bi may wéral mooy alxuraan waa ku mës a gis kuy préviser alxuraan yaramam <laughs> wa qablu kuntu tabibi alxuraan sama docteur su ma su ma koy jàng na di wér Cheikh ma Ba Gueye fekk Serigne Touba sañ am bi mu yegsee fekk jox sañ tubaa boppam am na ku mbokkal waajur bu jigéen ku ñuy wax sëñ Amirou Ndiaye sëñ Amirou ndax ku doy nu la joor ni ko jegee nga bokk nit nday mu mën a bàyyi la jor dem topp sëñ Tuubaa say Ameeru Njaay wax seen waajuru jigéen Kumba Bëkkëri la tudd mooy waajuru seex Mourou Ba ni ko maa ngi dem ca sëñ Tuubaa rocc ab jaaseem ni su ma àggee dinaa indi seex Mourou Ba dellusi ko ca la baa ma dagg bopp Cheikh Mourou Ba yut ko la ko ci neex ma dem jëli Cheikh Mourou Ba indil ko joor baa ma dagg bopp seex Mourou Ba indil ko la joor say amir Ndiaye tàggoog yaayam ndax boobu daa tiit ni Cheikh Mourou ba bàyyi gi mbàyyi la jor mën naa fexeel seen waajuru jigéen fexeel leen ñoom ndax boobu buur daa am doole Cheikh Mourou ba dem na ci sintubaa sa say amir Ndiaye rocci jaasi fekk Serigne Touba Mbàkke Kajoor fekk Cheikh Mourou ba ci tànki Serigne bi amir Ndiaye jaasi la jëlee jógee kër Amadou yàlla fekk Serigne Touba Mbàkke Kajoor bi mu Cheikh Almiru Ndiaye agsi Serigne Touba bàyyi leen ko ñu bàyyi Amiru Ndiaye mi ngi yor jaasi de wuti Serigne bi yegg si ba ci kanamu Serigne Touba Serigne Touba ne ko Amiru lu say tànk luy say tànk la ko sëñ Tuubaa lan mooy say tànk ku jàkkaarloo ko sëñ Tuubaa xam ne amut morom ndax di ko luy say tànk xam sëñ am lu mu ko tontu jébbaloo may indi <laughs> ka gàddu jaas ni dinaa jëli bopp Cheikh Mourou Ba bi ko sëñ Tuubaa laajee luy say tànk ko jébbaloo ma indi jébbaloo ma fi indi sëñ Tuubaa ni ko nangul naa la waaye boole naa la ak Cheikh Ba sëñ ni ko nangul naa la nangul naa la njébbal gi yow Amiru Njaay waaye boole naa la ak Cheikh Mourou Ba mooy sëñ Tuubaa ku mës a jamonante moom jàkkaarloog moom xam nga ni amut morom xamul tax dafa romb nit ñi romb li ne ci loxoy nit ñi àgg ca borom nit ña mu jox ko njariñu mbindéef yi sëñ am njariñu mbindéef yi la yàlla jox sëñ Tuubaa njariñu mbindéef yi moo nekk ci loxo sëriñ bi nafa an nii wa biya yan faxul waraa loolu dañ ko war a leeral nit ñi nafa an nii wa biya yan faxul waraa xam nga waxtaan sëriñ Tuubaa taxul nga jël sa sëriñ teg ko ci kanam lii du classico du Barça Real déedéet sëriñ Tuubaa gars yi du classico du Barça Real déedéet wax mbaaxu sëriñ bi moo rëy ba ko tuddee mbaaxu Sëriñ Tuubaa mu jàpp yow da nga oyofal la mu nekk fekk déedéet la nga yor oyofalut waaye li yor moo dis gan Sëriñ Tuubaa moo diis kenn la nga yor waaye li nu yor a diis xanaa ab terrain sax kay sol numéro 10 moo cee gën a ràññeeku terrain football ka cay gën a ràññeeku mooy numéro 10 ba moo cee gën a ràññeeku mooy séddale jox attaquant yi ñuy dugal nafa an ni wa biyee yan faxul wara wax wa ñëw nu dara yàlla ma jariñ ku jariñoo da nga ànd a sëñ tubaa nee na amul kuy dund ci jamono te dundee wa sama barke man sëñ tubaa ñëpp ci barkeb sëriñ bi la ñuy teddee lam yàq ko fil kaw ni si waa man yetlu barakat yi waxat ataani mat la bu sëñ am koo ku ne lu yëngu mana lu fi dal mana yàlla jox na ma kun fa yëkkun baraktal yi fil arakaati wa sukut rabbi lazi xat xaale li fa yëkkun kon teel a gëm gi mu teel a gëm boppam moom sëriñ bi jox boppam yàlla te ba mu jox boppam yàlla xam nga na mu doon joxee boppam yàlla mooy nan mooy li nit ñi gën a jublu sëñ tubaa moom la gën a wan ginnaaw suñu am parce que sëriñ tubaa dañ ko war a expliquer nit ñi nit ñi xam ni xëccewuluy mbooloo leeral nit ñi wax leen dëgg sañ am ni leen sëriñ Tuubaa fu mu ne mu xumb day dem fa wéet loolu nit ñi dañ ko war a yëg bàyyi ko xel xam ni fu fu daara ja mës a xumbee rek moom mu tuxu fa wéet xam nga tax lim tegoo woon ci jaamu yàlla may ko mu toog saa su ne di jaxasoo nit ñi moom sëriñ Tuubaa waa xoolal ki am benn dëkk ci jamono sëñ Touba dëkk bi mu njëkk a ci jamono mooy Daaru Salaam ba mu sancee Touba da koo jox Cheikh Anta rafaati ko mbooloo ma fa ne wét Touba ngir jaamu yàlla kon ba mu toog Touba jaamu yàlla ko fa yóbbu woon ko yor benn dëkk sanc ko dem sanc ji Touba jël dëkk ba ak la nekk ca dëkk ba rafaatale ko Cheikh Anta Borom Salaam dem tuubaa nekk fa jaamu yàlla Touba ba mu fa nekkee jàmm yàlla la fa nekkee woon ab diir mbooloo ma fekk fa mu ne képp koo xam ne jàng ak jàngale ak masala moo la tax a jóg dee ko laaj Sëñ Mbàkke so ndax li ma tegoo ci jaamu yàlla ko moom xëccawul aw nit waaye yàllaa ko defal nag ku dégg riiram topp ko waaw Sëñ Touba yàllaa ko defal ku dégg riir mi rek topp li bari na waaye riirum Sëñ Touba ko dégg topp ko bala nga cee xam dara màggal tubaa jot bu màggal tubaa jotee nga yëg ni sëriñ Touba yàlla mu damal na ko xamul tax européen sax dana yàkkamti màggal tubaa jot waa koo xam ne ña ko doon noot bisam dañ ko yàkkamti ndax Europe conteneur yi balaa gën a bari màggal tubaa jot te ñoo kat ñoo ko doon jéem a noot waaye ñoom ñoo ko doon noot ndam li fii la nekk xam nga sëb sëriñ gañe na fii la victoire bi nekk victoire mooy lan tubaab yaa ngi raam léeg-léeg nga dem jumaay tubaa sañ am sàppe ab tubaab ab tubaab ngay jonjanteel xam nga looy jonjanteeg moom yenn bokk rang nga ne ko looy def mu ni siyaar ki ngay siyaar tubaab bi danaan ki ngay siyaar laay siyaar waa léegi tubaab bi bu nee la da ngay siyaar may siyaar mooy wane ni sa sëriñ nga yenoo sama maam sëtu toog ab tubaab di ko ëpp mooy wane ni tubaab bi nangu na ni sëriñ Tuubaa gañe na maamam victoire bi fii la xam nga victoire bi fii la mooy sëriñ Tuubaa day sëtam day toog ab tubaab yor ëpp du ko ëpp mooy wane ni sa maam gañe na sa maam moo tax sëriñ Mamba li tax yàlla da ko xamal lépp ba muy baal tubaab bi lii la xam xamoon na ni tubaab bi dinañ tagg seen biir màggal si moo tax mu ne afawtu li wàcci laahi ma safi kalkal yi baal naa leen ak xol bu set topp ma leen dara xafawtaani ahdaay turan li wàcci man nafaahum li xayri sarmadan nas at fahum baal naa mbooleem tubaab te jëmmi yàlla rek tax topp ma leen dara booba xam na ni danañ ko nangul xam gënu xam ne moom danañ ko nangul moom sëriñ Tuubaa moo tax sëriñ am sëriñ Tuubaa nekk nit ku universel li tax mu nekk nit universel mooy moom bi mu dikkee tuddee yoonam wi muridullah ku nam ma dem ca yàlla wala ku mu ci yàlla foo jëm moo tax mu woo ñëpp ba noppi nangul ñëpp ca biir masaalik boobu ca biir masaaliku jinaan boobu boo ko jàngee doon ab taalibeem da nga xam Sëñ Tuubaa dafa teel a nangul ñëpp fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila al jaylaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi iskulum qatala sawaabi eh booba amagul ñaar fukki at ca la nangul ñëpp kon jot na nag ñu nangul ko sëñ Tuubaa ngoog ko amul ñaar fukki at nangul ñëpp jot na nag ñu nangul ko wax mbaaxu sëriñ bi wàññiwu dara wane sëriñ Tuubaa wàññiwu dara xamul tax wax mbaaxu sëriñ Tuubaa xam nga dafa mos a laaj mag ñi ni leen alam tara annal fulka tajri fil bahri bi nihmatillaahi firil leen ma aaya bi mag ñi ne ko gis nañ ab gaal buy daw ci géej gi ci xéewlu suñu borom sëñ Tuubaa ne maanaa wi yan day ngeen ko tekkee noonu la waaye bi nexmatillaahi moom man mi la ci yàlla jublu man maay xéwalu suñu borom xam nga loolu sëñ Tuubaa waxal na ko boobu nee na moom xéwalu suñu borom la Cheikh sat bu dëggal ko Cheikh Saad bu ab yi nee na Sëriñ Tuubaa xéewal la yéen murid yi jàppul leen yéen donc moom déet ñëpp ko bokk ñun nangul nañ ñëpp bokk ak ñëpp sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa mi naam sii suñu ci kenn iñaanewuñ ko kenn ñëpp lañ bëgg a bokk ak sëñ Tuubaa ndax njariñ la te njariñ li ñun am nañ yéene bokk ak ñëpp moo tax seen a Cheikh Saad bu ne inna ma sayxu nihmatum li ma wax demal ci diwaan heure sooraay gànnaar da nga ko fa fekk seeb laa ko dajale baa nga dem daaree kaamil la nga fa dem gis téere ba ku ko laaj Moustapha Diatara mu wan la téere ba diwaanu ahlu soiraay gànnaar ko dem téere ba manga nga ca seeb laa ko dajale ma nga fa boo fa demee Cheikh Saddu nee na innama sayqu nehmatun anhama allahu biha ayatu min ayati alimatu hibaadu sarfan wa qarban wa xadri haawal badaati Cheikh Sadd boo ko wax nee na Serigne Touba xéewal la ci biiru xéewal waaye man Cheikh Saddu nangu naa sëñ tubaa comme jamono teel moo la man waaye waxi seeblaat jënge lay dellu siwaat ginnaaw sëñ tubaa commune sëñ tubaa du am mooy alimat xibaadu sarfan wa xarban wa xadriha wal badaat teewaayam mooy sunu kilifa waaye ginnaawam it keneen dundu yilif ku du sëñ tubaa xamu tax tubaab bi bi ñu yóbbee sëñ tubaa gànnaar xam lu ko waral humiliation physique lañ bëggoon ak moral xanaa xamoo gànnaar gi ak a métti sëñ sëñ am gànnaar ak a métti sëñ tubaa xamu tax ko fa dañ noonu nan ko fa yóbbu pour sous-estimer ko mais sëñ tubaa yàllaa ko préparé ci lépp xam nga sëñ tubaa kañ la dindi complexe ci boppam bi mu bind masaalikul jinaan bi mu bind masaalikul jinaan la dindi complexe xam nga sëñ tubaa laa taw moom vingt ans dindi na ci boppam complexe fale si yujibu sawaadul jismi safa safa atal fata wa sool fahmi te masaalik la ko wax nee na yor dër bu ñuul taxul nga doye di yor dër bu ñuul taxul nga bañ a jaamu yàlla yor dër bu ñuul taxul nga bañ a baax moo tax bi ko naari gànnaari ba ko tubaab bi yóbbee gànnaar ngir bëgg lan suufeel sëriñ bi ba mu agsee gànnaar xam nga kon moo njëkk a seede ca gànnaar Cheikh Sidiye Baba Cheikh Sidiye Baba ca gànnaar moo njëkk a seedeel sëriñ ni ko tubaab bi accusation bu ne teg ngeen ko ci kawam waaye kii ñaari defoo rek la am Cheikh Sidiye Baba nee na bu dee sëriñ Tuubaa am na défaut ñaari défaut la am ñu ne ko yéen ñaari défaut la sëriñ Tuubaa mu ne wama aybuhu ila ibadatu rabbihi wa yanfahul wara fi subhihi wa masaihi kii ngeen di sikkal bu nekkoon am na sikk man day ñaar laa xam ci moom mooy fu mu ne jaamu yàlla ak jariñ jaam ñu subaa ngoon lii la Sëñ Tuubaa am wa maa aybuhu ilaa ibaadat rabbihi bu dee am na sikk moom jaamukatub yàlla la beneen ba ca topp mooy fu mu nekk jariñ jaam ñi si Sidé Baba ca gànnaar lii la séeréer Sëñ Tuubaa te booba tubaab bi accusé nañ ko lu ne tuumaal ko yóbbu ko gànnaar Sëñ Tuubaa dem gànnaar naari gànnaar yëpp xam ne dañ ko doon waxal amut di nangu di bind diwaan ëllëg bari na lax lu ëpp juróom fukki kilifay yi naari gànnaar ci ban ni day maa ni ku ne séedéel na sëñ Tuubaa nangul naa ni yow li la yàlla may moo la ko may moo tax xam lan moo ci des bëgg ko mahabatu Abdul Xadim wirdi yi waxiya la daa zur harsil azimi xayr wirdi sëñ ma jë paxa nee na wird bi gën ca yàlla mooy bëgg sëñ Tuubaa wird bi gën a màgg fa sunu borom mooy ibbi soxol def ci sëñ Tuubaa bëgg ko jami àddina la jàmmi àllaaxira la sëñ am sunu waa ji baax ku laal ku ko laal sax baax sëñ tubaa ngërëmam topp siti la aw askan lay topp ku sëñ tubaa gërëm topp siti la bala nga cee xam dara sëtu Cheikh Rafaal bu dikkoon ñëpp raam ndax Cheikh Rafaal la toppoon sëñ tubaa sëtu Cheikh Anta bu ne woon tëll ñëpp raam ndax Cheikh Anta toppoon sëñ tubaa sëtu Mamor Diarra bu ne woon tëll ñëpp raam ndax jaara Diarra loon sëñ tubaa maam Ceerno borom daaru moti fu sëtam ni tëll ñëpp raam xamul tax sëñ tubaa ku ko nangul ñëpp nangul la waaye ana ña ko doon suul man ni baa meelu mer leeg man gisaguma ko wóor naan ñoom laay seet fan ko ah? am na ñoo xam ne xoolal xalal ni bés bi ma leen may ba tudd leen ci plateau bii da nga laa la wax téeméer at doo leen dégg <laughs> sunu waa ji sëñ Tuubaa ku ko xoolal ku ko ñaqal mu fay la ku ko doon xeex yàlla fay sa tur darajati taxlu wala istatan xafit mhm. wa man nahaa minal wara xaftiku mhm. yàllaa ma yëkkati mhm. da nga may jéem a yëkkati yëkkatiku bëgg maa suul yàlla nëbb la la dégg. dëgg la jërëjëf jërëjëf si Abdou Lahat euh, Aw euh, fi nga bàyyee am na solo euh, dafa ne bokk rek ci aspect yi ñu wane ni ay at ci ginnaaw da ngay yi am diplôme arabe di góor góorgóorlu ci majalis waaye chaque jour yaa ngi ci football bi wala yaa ngi ci basket bi léegi amatul léegi terrain bi mooy bâche yi ak tele bi mooy léegi kenn ku ci nekk la ngay góor góorgóorlu ci xam-xam di leeral mbindum sëriñ bi. fi nga ko bëgg a joxe jee mooy àddina sépp di ko dégg ak ci baasi nit ñi di ko jariñoo kon loolu dafay mel ni bu ñu waxoon sëñ Tuubaa ila jeunesse ci xam-xam dafay mel ni yéen atteindre ngeen loolu li sëñ euh, Jibril Seen wax léegi bi ñuy tàmbali mooy likke gi ngeen likke seen bopp di ci liggéeyal sëriñ bi nga xam ne tey dafa noppale tey boo ma soxlaa ay borom yi xam-xam ba ma woowee sëñ Jibril Seen ne ko man damaa soxla ñaari invité ci tam sàngam laa waxtaan rek day dugg ci biir groupe bi rek daal di ñuy boole ñaar ni loolu dafay faciliter liggéey bi te foofu la jamono ju toll euh, waaye nag euh, lu am solo la euh, day dëg tënkuwaat rek ci li Sëñ Tuubaa waxoon ne lépp loo gis ngërëmal yàlla nekk ci bul ca ragal ixtilaafu nit ñi wuuteeg wuuteeg nit ñi nii laa ko gisee ne laa ko jàppe déedéet foo xasee xam ne ngërëmal yàllaa ngi ci rek xar ci sa tànk sa tànk sa tànk sa tànk ba jot ci fa kullu ma fiihi ridallahi jala falaa taxaf fiihi malaamatal waraa loolu mooy li nga xam ne mooy mooy moo am solo kon sëñ Abdou Lahat euh, Mbay dama lay bàyyi nga jàngalaat ñu xasida su ko defee ñu daal di def benn tour euh, muy tàggatoo bi euh, ñëpp mën a dem dallu ji ndax <laughs> Pape Cheikh de da Jibril la bëgg mu nelawi daa sonn jël ñoom li def day sécurité mm-hmm. gis nga mbooloo mu ànd di ay ndaw mm-hmm. day day sécurité déjà sëriñ bi dalay ñakk ak xaside yi mm-hmm. ba léeg-léeg boo bëggoon a mel neneen sax doo ko mën ndax euh, da nga ko rus wala nga jomb ko wala nga nga rus ñi ngay àndal moo tax lëkk léegi ci kuréel yi da ciy baax ndax euh, bu gaa yi gisee ni saawaay waxee na noo xamante ni du noonu ñu tase ci biir kuréel da nga ah sëñ Ablaat kat yow tey jii nag nangam wala yow kat bayit ba wala xisa bee nañ ko nettali nangam ñuy jubbanteente suñ biir mhm. sëñ Ablaat dina rus euh, moos seen Jibril mi di ko séen ci dara wala mu di mu di ko ci dégg loole da lay day sangewaale moo tax gis nga mbooloo yi di dafay kuréel di ànd da leen di da leen di da leen da leen di sange loole nag li koy sëñ bi toppook yow ba mujj gi Euh, xam nga ni sëñ ablaat mii di fanaan ci baas yi ak yéen bu xëyee dana tal leneen ak dallu ba ba ba <laughs> jotam du ko may ci yenn yi di sëñ bi da lay moom ba da lay daanaka dootul ba day fiir ci nitam kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaajëfal ma nuyu bu baax a baax Euh, sama soxna su baax su ñuy wax euh, Tulaay Dieng fii si Scat Urbam baram may na création maa ngi koy maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax dafa am tamit soxna su nekk Touba mhm. ku nuy wax Bade Seck ndeysaan euh, suñu borom def mu yor tawat mhm. waaye mu ñuy topp fu mu toll mu bëgg daal ci jataay bi tamit ngeen ngeen ngeen fasal ko bu baax a baax a baax yàlla na ko yàlla yëkkati Bade Seck suñu borom dogal ndeysaan yàlla na ko yàlla yëkkati nekk handicapé ak yooyu waaye fonk loolu ba daanaka sax gi leeru ay message mais Djibril waa waa kii tamit waa prisonniers yi. Euh, waa Campenar ak euh, ak Rëbës. Mhm. ñoo ngi leen di ziare. ndax gaa yi foofa. Mhm. ñoom nee nañ bu ñu yëgul méttitu foofa. mooy waxtaan yu ñuy waxtaanee seen Touba ci Touba TV. Mhm. Euh, te ku ne xam ne ne adduniyaa asijinul mu'min waaye wa jannatul kaafir. kon nag ñun doomu aadama rek ci kaso lañ nekk. waaye nag ñoom ñu ngi wétali ko télé bi saa su bëgg nga sëñ kii jàng waaye nag xam naa bu ñu mënoon am ab soo tuuti nag jeexalee ko it dana baax ñoom ñaar bu leen neexee daa na bàyyi laat ni lim <laughs> la neexee daal ngeen def diw waaye daal lu ci mën a doon daal moom euh, bàyyi kàddu gaa ngi bu saf daal صلى yaa Mustafa yaa Zannada salla alayka man adaaka Zannada aska salaatin bi salaamin li tajuud bil istiqaamatin wa taliilil wujuud wala li wala saabi wala atbaa'i wa zaadani ilman ma tibaa'i yaa sayyidi yaa mujtabaa yaa zal ulaa salla alayka man taala wa alaa aska salaatin bi salaamin la adad laa tasuuqu li dayman madar filaali wa saabi wa kafa maadar ani wa jaadali ilayka bin nazar yaa gaydi yaa muntaxaa yaa saludaa salaa alayka man saltuudaa aska salaatin li tasuuqu kullamaa lonstaitu sarmadan musallamaa maa salaamin bi jamii'i laali wa saabika durari wallaali yaa seydi yaa muntaxa yaa man sarra salla alayka man daaka lii sura aska salaatin lii tajuudu bi safar bi an ujaawi raka min xayri safar ma salaamin bi jamiil aali wasan bi man xaddaalahum maali yaa seydi yaa xayra mursalin ilaa xalqil ilaahi alaalamiin nasil ilaa salla wa sallama alayka abada bilaali wa sahbi wa man taabada aska salaatin minhu jalla bi salaam tutiibu lii tuubaaya ma daari salaam salla wa sallama alayka bi jamii عليك والأسب ربك سميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسقن هداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بالآل والسبي وكفى ودبي musalliman alayka tuulal abadi bilaali wa saabi wa kafa wa badi min daayil yowmi ilal jinaani wa bika safa abadan janaani yaa xayra mursalin li xayri umma salla alayka man kafaakal humma rabbun karimun naafiun qad jalla wa xadraka alazima xat ajalla musalliman alayka fawqa addadi bilaali wa saabi wa zaada maddadi yaa man li tasdiiqiha qad suuqa alqamar salla alayka man bi qafika mar musalliman alayka bil ikraami filaali wa saabi bilan siraami man bika jumlata zunubi xabara wa kullama alayya anni kaffara ya mustafa ya muntaxa ya mujtaba salla alayka man adaaka wajtaba musalliman alayka fil alil kiram وسابك الغر وقادل الملام ولسواي نهي والشقاء كف وما يرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتآدب وبالكلام يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام نعما وكلما استغت إليه قاد لك بلا مشقة فانغادا مسلما عليك يا مقتار وليساق كلما أقتار دنيا وأخرى بك سلام من من العساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبكلي كان وساق للعرب حتى أسير بسر هجم وعرب ودمني إلى سعاب الأمنا وقاد لي بلا عساب الأمنا وقد تذنبي وعيوبي يمعى وراد لي كل كنود جمعى وجاد لي بكون ظن نظم شفاء لي وللأمة أمتي حيث كسفا وكف عني جملة الرزايا به وساق لي بمزايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة الدعاء داع جدير خاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نبى عناي يا من شؤال غير عندي لي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا غريب يا مجيب صل على الذي بي tujibu sayyidina zil mu'jizatin bi salam filali wasabi muzazi'u salam wa kun li ad-dahra wa kun ma'i wa kun li sa'iqan fawqa marami bikun wa kun li ad-dahra wa kun ma'i wa kun li sa'iqan fawqa marami bikun wajal bi jaayi ayaati saafiya lakk bi maal ujoorin daafiya wajal bi jaayi ayaati saafiya lakk bi maal ujoorin daafiya inni awoosu bililaa muslootina min kullilaa iblis mañ aj rahmatullah ba yoonam dëng naa bismillaahi laay dale waaju ca doore dootale na ngeen xerawlu wax jile may bëgg wax ci Seyxuna mawut kay ta dooti daak takaj fi waajalay bi daak dundal sunnas Muhammada waaju ko weddi sanku kookaa di seyxil muntaxaa sibtul xadiimi suutuxaa moo sell dañal saxaa bambaa def mursidunaa kookaa di seyxil muntaxaa sibtul xadiimi suutuxaa moo sell moo dañal saxaa bambaa def mursidunaa dem nga bamar watak sabaa aj nga siyaara nga Mustafa donay xadimul Mustafa yaay saafaras xulub metti na galwaaya jambatoo fa tiis romb nga réewi kabla bees del toxol balaa dootuñu gis daray xanaa i jaru jooyi tegi la xaw mi moo nar tubaab ya naa wala texak nitam ñi yàgg na moo fi yaxal lu tax mana murid du mos jahannama ca bis ba xet ya ñépp na ku niy fegal asaabana moo nu defal ngën gi xira ñuy naan ca déegi kaw sara moo nu jamal jaw falfara saadatan ba aljana tànn nga ruu ya noon balaa ma alastu aw walaa yaa nuy woyal indal malaa li lee la def safiina yow mi doday xayrul walaa yaa nuy musal ci sa waraa yaa nu kawel bi laftiraa alaa rijaali rabbinaa yow mi defal sa tuqidaa yamak dereeti suhadaa seex Muntaxa fegal ko daa may ko si faasu dóori naa yow mi yaxal tawil la naa dellu ca teg saxix naa far ko dëxëñ ci seyxu naa al Muntaxa imaama naa yow defal sa toqi daa yam ak dereeti suhadaa seex Muntaxa fegal ko daa may ko si faasu dóori naa man mii Muhammadul Amin may may ngaram yu dootu neen te may ma ak yokku amin fegal morol ci àdduna wakirlu naa ci rabbana sëlmal ala sayidina salla alayhi rabbuna kamastafa taxawlu naa wakirlu naa ci rabbana sëlmal ala sayidina salla alayhi rabbuna kama stafa taxawluna wakiluna ci rabbana salmal ala sayidina salla alayhi rabbuna kama stafa taxawluna lil xaadatil wujur wal masaa bi tey wal jësi bi way nii saalimu wapliyalil masaya wala mal azaali allazi yukammilul amal wal tajali dunya liyal masaliya qaidatan habdan khadiman saliha salli ala sali wa huwa muslimu a azadiqu sidduqu salaatan tuslim di sëriñ Saliou si am loolu ñu ngi ciy bégal baax sëñ Abdou Lahad Sène ñi taalibi sëñ Saliou nga xam ne lii ñu sol moo ñu ko jox waaw jox ma ko addi sëñ Tuubaa wax dëgg yàlla ñu ngi koy ziar baax moom lañ doon bégal ci sëñ Saliou bi waaye sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Babacar waaw ma ngi koy ziar baax sëñ Babacar Diouf ah, di ziar sëriñ Bamba Ndiaye moom sëñ Saliou mm-hmm. nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom teraanga yi bëri la ñuy jël ñu ko jox te sëñ Touba tax wallaay ndeysaan professeur sëñ Mountakha bi ñu doon jàng sëñ Mamadou Diop mi ngi nekk trésor mm-hmm. moo ko bind def ko ci sëñ Mountakha wallaay ci bind ko it boo ma jox ma xéwal bu bëri mm-hmm. ni ma dama bëgg nga jàng ko def ko ab clip ba clip bi noppi na xam naa dinañ ko joxe télé bi incha allah ñu ngi dawaa ñu ngi jaare mboolem waa Tëngéej yëpp rek nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla suñ Modou Mamoun jàng ñoom waa daayira ba waaw suñ daara Fatou Badi Fatou Badi waaw suñ Fara Gueye suñ Mbacke Gueye suñu Mbacke Gueye sama xarit wallaay wallaay ñëpp ñu ngi leen di jaare wallaay ndeysaan di jaare bu baax tamit ku baax ci ñun dëgg yàlla moom ñu ngi koy ziar baax waaye di ziar sama jigéen bi nga xam daa dëkk fii ci almadi mm. di soxna Aysatu Amar nga xam ne wax dëgg yàlla këram lañ jóge léegi mu defal ñu ay teraanga yu bëri ak sëñ Abdou Lahad am wax dëgg moom ñu ngi koy ziar baax waaye sëñ am ñi ngi jégalu rek di préfété wala di ziar di woo mbokk yëpp ci bis bi ñuy defal sëñ Saliou am ñu jot waaw mu doon lan demee korité incha allah incha allah ñu ko defee ci tëngee ci Fass bu soobee yàlla ci woo soppe yëpp nag sëñ am maa ngi la ci woo moom dinaa ñëw ah at mu jot mu woo la waaye dama la gis ak sama soppe bi sëñ ren moom ren moom sa waay moom moo war a jiite délégation ndax mooy sa première fan sa club waaw ñaari sëñ Abdou Lahad yi ñoo ñoo ñoo ah? waxtaane ah? incha allah ñu ngi ciy Pape Cheikh yaa jeex na jërëjëf sëñ Abdoulaye Mbaye ñu gërëm ko bu baax sëñ euh, ngi lay gërëm sëñ Dame mi ngi wax ne waxtu mat na ma bàyyi la rek nga gërëm mbokk yi ngay yi lay seetaan en tout cas waa groupe kenn sëñ bi yëpp sëñ ma maa ngi naan man nañ la yóbbante ay cant ndax émission bu am solo bi nga xam ne yaa ngi ko ciy def ñu ngi lay ñaanal yàlla taxawu la ci sa woyof dëgg yàlla sa matale euh, soxna Adama Mbacke maa ngi gis message am ñu di ko ziyaar baax mbàkke ak soxna maam Ami euh, Mbacke soxna Nogay ñan sunu xarit mi ngi ci groupe bi Eh, tubaarkàlla ak soxna Bintu Jaxate moom sëñ Murtada Jaxate soxna Astu Gaawaan Jaxate ak soxna Astu Gaawa eh, soxna Astu Jaxate tamit ak eh, soxna Astu Gaawaan Diop ñoom ñëpp soxna Njaay sii bi ñu ngi lay topp ak soxna ñaaña di nuyu baax sunu benn sunu xarit sunu lépp muy soxna aju Diop ca Floride ñu ngi koy ziare mook yaayam soxna Faama sëñ sëñ sëñ bu Njaay tubaarkàlla ma nga ca New York ma di ko ma di ko ma di ko ziare baax a baax moom it Eh, di ko ñaanal yàlla eh, taxawu ko moom njaayeen bu ceeb bee tax ma di may fàtte tur bi eh, waaye maa ngi koy nuyu baax a baax sëñ Mortala Ndiaye ca États-Unis maa ngi koy nuyu baax di ko ziyaare mi ngi yónnee léegi bataaxalam kon sëñ Jibril Mbaye la nga tàggatoo bokk yi rek. ok jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Lahad wax dëgg yàlla ñaa ngi moom comme ni ma ko waxoon ca ndorteg rek laa koy wax. Uh-huh. neex boo ko romb jàpp. tamit ak. tabaarakallaa kon yal na yàlla gën a taxawu. ndeysaan. yaakaar naa ne jataay bi ñu ko seetaan ñëpp am nañ mbégte ndax xam-xam rek mu fi génn kon sëñ Amady ñu ngi lay sant bu baax di sant suñu turandoo sëñ Jibril ko sant bu baax di ko ñaanal tawféex ak liggéey bii ñu ko dénkit suñu borom gën ko ci defal ay tawfeex di sant bu baax ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ndax cameraman yeeg ñëpp ñu ne ci technique bi yëpp di ñaanal borom borom barab bi suñ mbàkk yi suñu dolli ko defal tawféex ba yéenem ci liggéey sëñ Tuubaa bu matale ko di nuyu bu baax waa euh, groupe kenn sëñ Tuubaa boobu nga wax léegi ñoom ñëpp ñi maa ngi leen sant ndax jàpp nañ ma jàppin woo xam ne xam naa ne sëñ Tuubaa nga tax ndax sama jëmm tolut noonu ziar tamit mañ mawtul muhaadirin bi nga xam ni sëñ Bay Mbàkke ñang ku baax la ndeysaan borom xam-xam bu mag nekk fi waaw te teel micro bi ci kaw wax eh, da daa mën a waxtaan lool ne ko walaay walaay nekk fii ci télé ñu baax ku ñuy wax Alsaan Silla di suñu xarit bu baax a baax ñu wax Silla création mu nekk Touba Marsukaas mm-hmm. di suñu xarit te wax dëgg yàlla fonk mu lool ndeysaan lu ëpp ci li ñuy sol moo koy ñëw ndeysaan di ci dee coono ngir liggéey liggéeyal Sëñ Tuubaa ak kóllëre gi yàlla taxaw suñu baay baay Ibrahima Diouf ci Géejawaay nga xam ne këram lañ jóge ñëw mhm. fa lañ nekkit nag mhm. boo nu fekkee day këru bopp la nekk Tuubaa mhm. bëgg loolu jàpp nu ak ñëpp dale ci soxna Aadama soxna Buso ba ca di ziare waa Al-Azhar lépp rawatina waa Géejawaay di ziare di profité nag di ziare Sëñ Xaadim eh, imam Masaalikul Jinaan di ko ndokkeel ak di ko ñaanal soñ ñun ndax xëy na as bi mu toll bëgg xam-xam jaral ko mu toppaatum njàngam ba doon defi doctorat ba ñëwaat loolu wane na ni kon lu mën a nekk rek mën nañ ko boo boole ak gëstu kon ziar baax di ko ñaanal loolu tarkalla jik ko te suñu borom defal ko fan lu gudd ak tawfeex amiin di ziare magam sëñ Bachirou Lo di ziar nag suñu xarit boo xam ne ñoo ko bokk mag yow mu sëñ Maxtaar Sëy sëñ Maxtaar Sëy waaw sama xarit la lool mi ngi ma yónnee léegi bataaxal jàng Al Azhar bu Guédiawaye ngi ma yónnee léegi bataaxal lu mën a xew ci suñ jëmm rek moo ci neex a fekk Dubaay lool wallaay moo tax moo wax ne la fraîche bi waaw na ci ñëpp jóg wallaay ji nañ ko def muy seen yóbbal wallaay màggal geeg korite geeg yëpp nañ nañ jàpp ci laa fraîche wallaay wallaay neex na te te yomb na kemaan la sama yëfa am na ñu ne ci suuf kay yoo xam ne waaw borom mooy sama lépp kéemaan la ndeysaan kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax wallaay wallaay na jàngkat yeeg waxtaankat yi wallaay wallaay yëpp nañ ci jàpp bu baax a baax ndax moom lu mu am rek ci sëñ bi la jëm dëgg la ñu ngi koy ziar bu baax a baax dëgg la ziare mboolem soppe yi ziare suñu waajur di ko ñaanal suñ borom gën fee yàggal sama baay ziare samay soxna ak soppe yi fu nu mën a ne ci àdduna bi ñu ngi leen nuyu di ñaan daal sëñ bi defal nu tawféq defal nu jàmmi àdduna defal nu jàmmi alaxira defal nu suñu bëgg ci barkab Cheikhul Khadim xëy na kenn ku nekk ñay say xame ak ñay say soppi ak ñi lay taxaw mhm. boo leen bëggee lim mën naa mu yàgg dëgg dëgg la waaye ku ne xam nañ daal liggéey suñ tubaa bi ñu ne jërëjëf mhm. suñ tubaa teg noonu ci loxo moom dëgg la muy si am kenn ku ne ci ñun wallaay bëri liggéey suñ tubaa bi ndeysaan suñ tubaa teg na ci loxo wallaay tax suñ tubaa teg ci loxo wallaay muy suñ tubaa bu la sampee ngay mbërëm mhm. noppi ngaa daanu moom li fee yaa ngi ci biir suñ tubaa noppi ngaa daanu dëgg la sëñ bay jaxate moo ko waxoon dane ko koo fal koo fal du daanu koo fel mu daanu sa mbër du daanu day ubtatal ko ndeysaan kon loolu moo ñu téye ñun. tubaarkàlla jërëjëf jërëjëf sëñ Jibril sëñ Bla ñu ngi lay gërëm. jërëjëf jërëjëf Dieng jërëjëf Dieng ñun bu ñu jàngoon ba noppi tamit bëgg a sunu xam-xam ndeysaan te amuñu ñu mel ni yéen wallaay ndeysaan ndeysaan ndeysaan ñoo ngi leen di ñaanal ngeen yàgg fi lool ndeysaan fu ngeen ànd ak euh, tawfiq sëñ Tuubaa ak amiin amiin amiin seenu fan gudd te lépp ànd ak teraanga ak amiin maa ngi sant mboolem ñu bokkoon ci plateau bi yëpp na suñu Lat Mbaye mi nga xam ni maa ngi moom dañoo yàgg koy ziyaare bu baax maa ngi moom tëngéej moom ba ma koy ba ma koy xam boobu xam a taxaw te sàmm ko di seet sama sëriñ sama mhm. euh, nga xam ne moo jiite mhm. liggéey bi lépp wallaay wallaay di ziyaare suñu xam ne moom it lim gàmm fii moom xam naa ne tubaarkàlla day woo ñu féetale ko gàmm wallaay <laughs> mag nekk tëngéej euh, mag koy ziyaare siyaare bu ak soxnaam soxna Fatou Niang di siyaare bu baax a baax nag euh, sama xarit sama soppe sëñ Xaadim Ngom euh, borom bamb électronique maa ngi koy siyaare di ko jox wàccu waay mhm. waaye di siyaare bu baax a baax sëriñ maam Thierno ko wakaana xaqan mhm. jël émission bi nag di ko jagleel sama xarit sama lépp sëriñ Chouaï Bouka borom sama fit waaye di siyaare bu baax a baax a baax tamit nag euh, ji ma Madiama Silla mi nga xam ni sama xarit la jàngal ma lu bare bare ci wàllu xam-xam nekk fii ci parcelle di fajkatub aajo di siyaare sama jawriñ sëriñ Mamoun Lo Gaydal maa ngi koy siyaare bu baax moom it jotaay bi waaw di ko ñaanal bu baax a baax tawfeex sëñ bi ak ngërëmam di siyaare sëriñ euh, euh, soxna Bali moom sëñ moom moom moom sëñ Muntaxa mhm. léeg-léeg ma wax ni moom moo moom moom la sëñ bi féetale muy Baay Faal Baay Faalu maam Jaara soxna Bali waaye it aw turam daa méngoog at yi soxna Jaara dund ndax Bali boo ko ara doon 33 la te soxna Jaara 33 ans la dund maa ngi koy siyaare bu baax moom soxna si di sama xarit di sama lépp di ma jàppale maa ngi koy ñaanal tawféex sëñ Tuubaa ak ngërëmam di siyaare ko ñaanal tawféex bu baax a baax nag mbooleem waaye yalax gépp ndax dañuy jàppale bu baax a baax ci liggéey bi ñuy liggéeyal sëñ bi di siyaare mbooleem Touba bi ñu dëkk di waa Touba Madiana ñëpp noo ngi leen di siyaare ñoom it di leen ñaanal tawféex di ci tàmbale suñu waa kër sama mag sëñ Ousmane Dieng di siyaare sa raqee nekk sëñ Modou bu baax a baax sëñ Modou Dieng sama mag ji nekk Espagne maa ngi la ko doon siyaare sëñ mi ngi la mi ngi doon topp jotaayu moom it moom it sa soppale sa wëllëre la waaye noo ngi bu baax a baax tamit sëriñ Xabbaan moom sëriñ Saliou di siyaare Alaaji Sataala Mbay moom sëriñ Saliou ak sëriñ Baddo Diagne ak sëriñ Dame Gaye moom sëriñ Mouhamed Lamine Gueye Firdawsi maa ngi koy siyaare bu baax di siyaare mbooleem waa Yarax gépp daal di siyaare sëriñ Aliou Ka moom it sama xarit la sama rakk la di siyaare waa daayira Munawir si dóor ci jiitul sëriñ Mouhamadou Diagne jëwri nga xam ne démb rek am na jafe-jafe yu amoon ci daayira bi waaye daa teet dajale mbooloo mépp xamal leen ni Sëriñ Tuubaa ngeen di liggéeyal wur leen am jafe-jafe taxaw lijjanti ko lijjanti boo xam ni kawe na lool moo sëriñ Mouhamadou Niang ak sëriñ Mouhamadou Diouf ak sëriñ Youssou Niang ak euh, mbooleem ñi nga xam ñoo tegoon jotaay bi sëriñ Fallou Ndiaye sëriñ Saliou Diouf ak euh, sëriñ Khadim Niang ak mbooleem waa daayira bi yépp maa ngi leen di siyaare di ñaan Sëriñ Tuubaa defal ñu tawfeex luñ fi wax lu leer yàlla la lu ci doon gàtt xam-xam la ak jëmm ji ko doon wax waaye ñu ngi ñaan dal plateau yi yàlla na bokk ci plateau yi Sëñ Tuubaa gërëm wa aaxiru da'waanaa ani alhamdulilah jërëjëf Cheikh Abdou Lahad Diagne ñu ngi koy gërëm baax a baax eh, ci kàddu yi Sëñ Abdou Lahad aw maa ngi lay gërëm jërëjëf Cheikh Abdou Lahad wallaay ndeysaan sama ñaanal ñu si borom def guddal seen i fan wéral seen i cër. amiin sëriñ Modou ak As ne ci kër gi ak soxnaam. wallaay Sëñ Laat moom dama koy sant ndax fi ma féete dafa bari lool te sëriñ Touba rek lan ànde mu mhm. nekk sama rakk nekk sama xarit. fu mu nekk rek. nga gis ma ca wetam. Mhm. ànd bi sincère lool ndax ñaar yëpp Sëñ Laat doon tuddee. moo tax mënuñoo tuddee sax yàlla tax ñu ànd ak sëriñ bi. kon nag moom laay jiital ci cant gi. Mhm. su ma ko nuyoo ba noppi nuyu ma njaay ak sëñ Abdou mi nga xam ni su ma leen xamee yàlla ak laat la mhm. ak soxna jama ba ca kër ga ñaanal seen waajur moom waajur sëriñ Bamba ak soxna jama mhm. borom yàggal fi loolu te may ko moom mhm. Cheikh Abdou Lahad nga xam ni li ma naan Abdou Lahad Mbaye moom ay kàddoom ak i jëfam dafa niroo Cheikh Abdou Lahad moom Cheikh Abdou Lahad dafa yor jikkoom lépp lu mu rek mooy lim nar ci xolam yàlla yàlla sant bu baax mboolem nag ku dëkk Tiwaawan jël nuyoo murtu Tiwaawan yépp teg ko ci loxob sëriñ Youssou Diop sama xaritu àdduna àlaaxira nga xam ni kër sëñ Tuubaa ga ca Tiwaawan sañ am murit yëpp ñu ngi leen cee soññ muy kër sëñ tubaa gën a tuyaawan mhm. képp ku ci mën a jàpp rek xam ne am nañ kër koo xam ne ma nga ca tuyaawan di këruk sëñ tubaa mhm. te sëñ tubaa lañ koy liggéeyal mhm. sant bu baax sëñ Youssou Diop mboolem murit yéen tuyaawan soxna maam Faati Mbàkke sëñ Xaadim Mbàkke maam Ceerno sëñ Gédé Mbàkke macha nuyu xalifab Cheikh Mor ba sëñ Moustapha Guèye ñu yóbbaale mboolem kilifa diine yi nekk tuyaawan waaye ñu ngi nuyu baax di ziar Ablaye Ndiaye Galgu moom it nekk am taxawaay bu rëy ci liggéeyub sëñ tubaa gi moom it ñu koy sant bu baax sëñ tubaa mi am fay yàlla na ko fay jaay Seydina Muhammad waaye maa ngi nuyu bu baax di ziar njaboot alaaji Moodu Aw la ko dalee ca Pamoussa mi saa mag di sama xalifa nuyu Moustapha Aw mi topp ci moom ak Góora Aw ñu yóbbaale mboolem njabootu alaaji Moodu Aw nuyu Yaxya Aw ak soxna Astu Baay Faalu Baay Moodu soxna Juma ñu baale mboolem njaboot alaaji Modou aw yëpp nuyu sama soxna nag soxna Mbène Ndiaye sañ am sama soxnaa ngi seetaan ma ñaanal la waaye sama fan sa la moom man lay béggee yàlla yàlla guddal fan a wéral cëram nuyu mboolem nag soppi baax di ko ziar ak ñaari soxnaam yëpp yàlla na yàlla guddal seen i fan wéral seen i cër bi jaay Seydina Muhammad moom soxna Joor ñu ngi koy nuyu baax di nuyu soxna Maada ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu te di leen ziar nuyu Birima Samb nekk France maa ngi koy ziar bu baax di ko jox wàccu waayam di sama soppe di sama xarit di ma taxaw ngir sëñ Touba waaye noonu it la ñuy nuyoo di ziar Cheikh Lahad Kane moom mi nekk ba France di sunu xarit di suñu soppe di nuyu Seydina Omar Ba bu baax la Seydina Omar Ba mm-hmm. ma nga France waaye comme taxawaay la ci liggéey Sëñ Tubaa gi Seydina Omar Ba sëñ am liggéey bu rëy li liggéey Sëñ Tubaa ca France rawatina daayir ba nekk Nice mm-hmm. muy am ca taxawaay bu rëy Seydina Omar Ba yal na yàlla defal la sa bëgg maam Thierno Wade maa ngi koy nuyu di ko ñaanal gudd fan wér nuyu waa daayir Majmahatu Mahadirin foofu laay daanele sama kàddu mm-hmm. jiital ci sëñ Jibril Sène mais jëwriñu liggéey bi ziar ko ñaanal ko gudd fan ak wér ni ma ko waxee sëñ am démb ba ndajee maag yow mhm. dama ni plateau télévision bu wax ci Sénégal mhm. waxtaankat sa njibri seen mi li mu fi génn ci plateau bi oh. xam ni mën naa demal fépp boppam ndax xam-xam bi mate na ko waaye lu dikk rek danaan na diw dem na diw dem man bari na plateau yu ma toog ci ndigalam laa fa demee mhm. te loolu te du man rek képp ku ne ca kuréel gi bari na fu mu koy dem moo la yebal nuyu sëñ Moustapha Saliou Sow la sama professeur la bari na masala bu may réer wala bayit boo xam ne dama bëgg xasida sax bala ma ko firi dama ko jox si Moussa Saliou sax ni ko nii laa ko déggee mun ma nii moo ko gën waxee ko nii nekk ku bari xam-xam yàlla yàlla guddal fanam sëñ Saliou Seck alxuraan mi mhm. yor kàddu mbooloo mhm. fan ak euh, Ibrahima Diouf ma nekk ca Canada ñaanal su borom guddal seeni fan sëñ Touba Touré maa ngi moom ñoo bokk benn bàyyi yàlla yàlla guddal fanam wéral ay cëram ak mboolem Majmahatoul Moukhaddamine Cheikh Lahad Dieng nag moom maa ko bëggal sama bopp ngir sëñ Touba mhm. waaw sëñ am Cheikh Lahad Dieng mii dama koo bëgg ngir sëñ Tuubaa ndax xam-xam bi ak yar gi ak dal gi ak oyof gi nag mm-hmm. te bari na gone yu jóge Touba di jànkat xasaayit këram la ñuy dal yor seen añ yor seen lépp di ko def ngir sëñ Touba sa foofee ca yaraax te loolu bu ko def sëñ Touba tax mu ne bëggul sax ko ko wax waaye Abdou Lahad Dieng mi asgor la mm-hmm. te sëñ Touba lay liggéeyal te nit ku baax la man dama ko bëgg ngir sëñ Touba boo xam li mu bëgg yàlla na ko mam Ceerno defal amiin amiin jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallaay. ndeysaan waa kër Sëriñ Tuubaa yëpp nga xam ne foo ay jógee ci Tuubaa di jàng xasida foofa ngay dal boo ñëwee ñoo yor sa lépp maa ngi koy siyaari siyaari sëñ Aliou Ndiaye seen sant yi rek xaw a doy waar Ndiaye sëñ <laughs> oh. Baara Afia mooy xalifa sëñ Afia Mbàkke mu sëñ Fall mi ngi teewlu émission bi dama koo fàtte sëriñ Baara xalifa sëñ Afia maa ngi nuyu ak sëñ Xaadim Loo mu sëriñ Bési Loo Ali Aram di sëtu sëriñ Baara di sama sëriñ di sama xarit di ma jàppale ak sëñ Fallu Mbàkke Jaañ ak sëñ Xalil Géey ñoom rek laay nuyu asalaamaaleykum jërëjëf jërëjëf sëñ am xanaa mise à pied nga ma fii ak waar wi daal moom. ku yor sa gopp di bay bu la neexee ko waaye kenn du ñu kenn demal <laughs> amul mise à pied amul ndax di sëñ Modou Kara di wax ñun amuñu stress amuñu pression. dund sëñ Tuubaa rek kon ñu ngi koy ziare sax moom it bu baax a baax te du ko nuyu ñu jaboot sëñ Modou Kara ak yëpp di ziare nag suñuy soppe soxna Ndew Xaadim Rasul mm, waaye tamit njabootu sëñ Cheikh Anta Daaru Salaam maam soxna ak maam soxna sama xarit ak sëñ Cheikh Bombali monsieur Bombali kooku moom sama xarit bu baax soxna soxna Codé moom it Codé Gueye bu baax a baax. soxna Codé waaw ñu ngi koy nuyu di ko di ko di ko ziar baax mi ngi topp jataay bi xam naa ne euh, suñu am. Mhm. sant nag bu baax gaañe te dolli di leen ñaanal ndax lii lu lu am solo la. Euh, gën gën a dëgëral daayira bi wax dëgg yàlla bég nañ ci ni ñu ni ñu seq yéen jataay bi te liñ doon séentu ci yéen gis nañ ci lu kawe suñ jor nag ñu ngi leen di bàyyeeg sëriñ bi. yow it ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëfal mboolem équipe technique yi nga xamante ni ñoom nañu àndaloon ci jataay suñ Mbàkke Mbodj ci suba ba léegi mi ngi fi. wallaay ëllëg ak jàmm yi tamit ñu fas yéene ànd ak waa Sénico ci bis boobu nga xamante ni ñu ngi ciy defar alxuraan bu ñu demee ba ci guddi gi it xam nga ni laylatul xadri soxna soxna May alxamis lay doon incha allah euh, ëllëg ak jàmm sëriñ Cheikh Abdou Bali dina fi yabal mbooloo moo xamante ni dinañ waxtaane ak soxna May yaakaar naa yow sax yaa koy taxaw yaa ak seen jili ba ak ñi ngeen di àndal euh, incha allah jaru nga may xool de émission bi de yaa koy def. <laughs> jërëjëf sëñ bi ñu ngi euh, laa bëgg a dem am problème dem fa wax naa borom wooma ma ñëw mu bañ muy sëñ Mbacke Mbodj Louga TV. Mhm. waaw sëñ Mansour Guèye Louga TV daal. daa dem Kéemaan ma ne ko daa dem Kéemaan sëñ Mbacke ah waa Kéemaan TV comme Louga TV bëgguñu maa ah. jël baal ma dem Kéemaan TV <laughs> euh, sëñ daam maa ngi lay gërëm gërëm sëñ Mbacke Mbodj baax gërëm sëñ Pape Cheikh Bey euh, soxna Aji Diop yaa ngi may sànni xeer rek kal la waaye maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay bégg lépp yow la euh, barakallaa jërëjëf gërëm téléspectateurs yi ñu doon seetaan ni ko sëñ Jibril waxee rek incha allahu taala suba ci oh. guddi plateau laylatul xadar ñu fas yéene waxtaane dundu soxna Maymunatu Mbàkke bintu xaadim rasul ak borom xam-xam yu wuute waaye fas yéene itam àndandoog yéen ci euh, Sénico euh, concours alquran boobu nga xam incha allah ba lay doon euh, incha allahu rabbi di nuyu sëñ Mamour Mbaye yoonu géej gi ñu ngi jot léegi ba taaxalam moom it mu ngi rafetlu jotaay bi sëñ Atumaan ñu ngi lay gërëm gërëm sëñ Abdou Karim ak mbooleem ñi ngi doon topp sunu mag soxna Jatu Diop di nuyu sëñ Modou Diop foofee ca Chicago mooy muy sunu mag sëñ Maxtaar ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan yàlla defal leen tawfiix naan leen lu jëw a jeexul jugu fa suñu borom xam-xam ñu ñu invité woon muy euh, mbooloo mii di euh, mañ moo xatul mu xaadirin euh, tubaarkàlla ñuy jàmbaar lool ci liggéey sëriñ bi ñu ngi leen sant leen gërëm sëñ Jibril seen sëñ Abdou Lahad Dieng sëñ Abdou Lahad Aw ak sëñ Abdou Lahad Mbay gërëm sañ Jibril Ndaw bi ñu àndaloon di leen jox dig daje incha allah suba ak jàmm naan leen lay leen maal baraka salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh